fellow citizens, residents of the Gambia, it is now obvious that no one is immune to the coronavirus and its impact. The recent increase in the number of cases, including high-profile personalities within and outside of my government, as well as other citizens and non-citizens alike is of concern to me and cause for alarm. I take this moment, therefore, to extend my condolences to all the families who have lost loved ones. And I pray that the departed souls rest in eternal peace. My best wishes for a speedy recovery also go to all those infected by the virus. Dear citizens and residents of the Gambia, in April of this year, our health experts projected that by July, August 2020, cases of coronavirus-related infections and mortality will rise in the country. In the past weeks, we have witnessed this sad development with a dramatic rise in the number of COVID-19 cases and deaths in our dear country. The latest situational report on the country indicates that more than 1,500 infected cases and over 40 deaths have been recorded. Health experts have suggested that these numbers can be minimized if we work together as a people. That is, as government authorities, experts, frontline personnel, household members, and individuals with serious consequences. COVID-19 has derailed our development agenda, challenged our health system, and undermined our economic growth. Our GDP indicators have become unrealistic. Trade has slowed down, and many young people are now unemployed. In one way or another, we are all affected by the global coronavirus pandemic. To mitigate its impact, my government has taken decisive policy decisions to address the health, economic, and social concerns associated with the coronavirus. I have invoked constitutional powers to impose emergency regulations. We have provided funds to fight the pandemic and have supported frontline institutions and our heroes who are tirelessly and wholeheartedly fighting to save us all. I have established a cabinet subcommittee to provide policy guidance. Together, we have demonstrated very strong political will through the implementation of a comprehensive national COVID response program. In the process, all arms of government, relevant institutions, partners, and stakeholders have been engaged to enforce measures to protect our people. They are citizens and residents of the Gambia. The reality is that we all have a stake in ensuring the enforcement of the measures put in place. Whether we are in position of authority, an enforcement agent, or a citizen or resident of the Gambia, every one of us has the common responsibility to prevent, contain, and stop the spread of COVID-19. No one else will do it for us. We have to stand up in unity and act together as a nation fellow citizens and residents of the Gambia, the reasons for cutting down business activities, restricting movement, and declaring a state of emergency are obvious. We live in unusual circumstances which require unusual, urgent, and decisive action. I appreciate that many of you would like me to address the nation often, and I want to assure you, I will do so whenever the need arises. I must emphasize, however, that the most important thing is taking collective action to enforce the messages in my addresses on the pandemic and the advice by the health experts. Whenever I address the nation, I do so in the national interest. and every law-abiding citizen and residents of the country should abide by our pronouncements. It is not my wish to see any citizen and residents of the Gambia suffer in any form. If we work together, respect our diversity, utilize our expertise, we can do a lot more to change our situation. Fellow citizens, each of us can be an advocate for healthy living if we follow the precautionary measures advised by experts. We can all be law enforcement agents if we value and respect the rule of law. We can have the type of country we want to live in if we all act responsibly and hold ourselves duly accountable to the nation. Fellow citizens, it is obvious that we will make a positive difference towards the development of our country if we value the time we spend and do good. Importantly too, we can maintain peace and stability in the country if we are honest, truthful, sincere, and treat everyone as an equal. That is why my government chooses dialogue and observing the rule of law noting that the Gambia belongs to all of us. Through dialogue and respect for each and other, we can achieve our development aspirations. Fellow citizens, residents of the Gambia, to stop the spread of the coronavirus, we are all duty-bound to wear a face mask, properly covering our mouth and nose before going to any public place. We do not have to wait until the law is applied before we do the right thing. Let us police ourselves as individuals, groups, and communities. It is important to emphasize further that all transporters, be they official, private or commercial, should be responsible enough to wear a proper face mask and ensure that passengers in their vehicles wear an appropriate mask in a proper manner. Anyone who violates this regulation or breaks the curfew in force will be dealt with according to the law without any compromise. Every sector of society have a duty to prevent the spread of COVID-19. I encourage and call upon religious leaders to support and adhere to the COVID-19 measures in the best interest of the country. Municipal and area councils, market managers, and all stakeholders are advised to provide sanitary facilities and design proper physical distancing mechanism in all markets and their environs. While civic education groups and the media sensitize the public. Families, neighbors, and friends have the civic and moral obligation to enlighten one and other on the messages from the experts, the regulations, and their implications. Government can devise or invoke the necessary public health laws and regulations, but it is our responsibility as individuals to maintain regular hand washing, proper wearing of face masks in public places, and practice physical distancing. In the thick of all this, law enforcement agents will have to enforce the emergency powers. There is an old adage that prevention is better than cure. Acting on this, let us demonstrate that we care about ourselves and those around us by following the COVID-19 prevention guidelines, regulations, and measures. My dear citizens, and friends of the Gambia. Once again, I reassure you that my government will continue to pursue the right policies and programs for the betterment of our citizens. We will maintain an environment where peace, progress, the rule of law, and self-realization will thrive. Therefore, let us work together to contain and stop the spread of the coronavirus. We are one Gambia, one people. Act now and stop the spread of the virus. Indeed, COVID-19 is real. I thank you for your kind attention. warahmatullahi wabarakatuh ñoo sétan ci ci Sahel Network TV man la seen xarit seen dom di Abdoulaye Soare ñoo ñoo ak yeen ci benen di nga xamne mom la ci benen di nga xamne mom la nguur gi tëral tey réedéewul mbir ne tay tay di aljuma on the 14 of August président bi nga xamne mom tay tey joxe na speech nit ñi yàgg na ñoo wax ne président bi kañ la mo joxe speech lu tax du wax dafa wara a wax nit ñi feebar bi wala fan lañ toolu tey ñu ngi nii fii nga xam ne mooy Allen Street Allen Street lañ nekk fii nii koñ bi moom macha allah nu mel léegi nii koñ bi moom macha allah ak ci ginnaaw nga xam ne koñ bi noonu la meloon Allen Street kay réeréwun bi ne Allen Street koñ bi nga xam ne la woon kenn nu fee romba waaye tey nu mel nii macha allah kañ bi moom ñi nga jaajafal ñi nga xam ne nguur gi ñi nga xam ne moom moo dépense bi nga xam ne ñu defar yoon bi nii tey maa ngi fi am ma gan bu mag a mag a mag ñu ngi ko ooyee Doudou Ndiaye tey moom la ñoom boppi waxtaan ak moom li nga xam ne mooy feebar bii nii feebar bi nga xam ne moo lëmbee réew ban feebar mu lan nit ñi di ko ooyee coronavirus ni am ñeneen ñi di wax ne covid 19 moom la ñu war a waxtaane tey nga tam dinañ waxtaane li nga xam ne mooy curfew nga xam ne moom la nguur gi tëral a pare du ré du ñàkk a li nga xam ne moom la président bi fii li nga xam ne tey moom la allah ma baaloon ma baatu ñu nuyu ak mbooloo mi asalaamaaleykum. waaleykum salaam brother salaam eh, man la Doudou Ndiaye man maay Doudou Ndiaye maa ngi waxtaan ak yéen si biir Allen Street just right opposite suma kër. Eh, tey seen ñëw bii ni kontaan naa si trop pour ñu mun a waxtaan si affaire yi Covid 19 bi nga xamee ne moom moo xew si àddina si parce que du mbirum Gambie rek mbirum àddina la fu mu nekk nii. nekk na loo xam ne eh, war nañ see safarlu bu baax a baax a baax a baax eh, yàlla jàppale ñu yàlla génne suñu ak jàmm ñi nga xamee ne ñoom la jot a yóbbu yàlla leen yàlla xaret àjjana ñi nga xamee ne ñu ngi feebar yàlla leen yàlla wérloo si kattanam si barke li jaay war a sore ñi nga xam ne tamit ñi yàlla def na leen amuñ ko yàlla leen sowe si kattanam si barke Muhammad sallallahu alayhi wa li ma leen a bëgg a expliquer rek ak affaire Covid 19 bii nii Covid 19 bii du yëfi politique. ñu génn si politique tuuti ñu jéem a seet suñu boppa parce que politique am na lii lu am la buur bu set yéen a ngee déglu di gis ñi di déglu de leen dee déglu ngeen di seetaan tele di riit pépa si di gis ne li xaw si biir dëkk bi lu am la lii nag feebar bu am doole la feebar boo xam ne mu ngi reyee ñun ñëpp gis nañ ko waaye ñeen ay benn tey ñu ngi jàppee ne dafa am politique bu si rax politique raxu si de lii du yëfi politique amna ñoo xamne nak ci biir dekk bi dañ ko jappé politique bi nga xamé né ñu ngi brain wash ni nga xamé né amuñ dat much understanding bi because of Gambia bi yalla def na alhamdullilah rabbi alamin ñepp amuñ dat understanding because of ñun ñepp duñ read riit te ñun ñepp duñ déglu news so ñi nga xamé né ñom ñu fi jitu some of them are brain wash educating us they are not telling us the truth they are using politics against whatever ñom fokk nañ né président Adama Barrow la ñoo xeex xeexuñ président Adama Barrow de seen bopp la ñoo xeex añ leen jéem a def li nga xamee ne moom mooy di war nguur gi taxawal na sarta ci si nañu ndimbal am nañ médical support am nañ support boo xam ne alhamdulilah rabbi alamin jox nañu ar sarta yoo xam ne suñ ko doxalee duñ juum te si kaatani yàlla yàlla dinañu sowee si covid 19 bii nii yéena yi si bokka mooy lii ma sol nii muy masque bi lu important a ngi nii ñuy raxas suñ loxo social ñu make sure we abide by with the rules to be able to save ourselves. This is our own life and our kids and families, friends and neighbors. lii amut demal ñëwal ñëpp a ngi koo gis ci seen bët añ leen jël politique ñu tegee ko boor politique amut si lii lii loo xam ne la àddina bi yëpp la affect xëy na ñun sax ñu ñu ngi see jot am waaye balaa moo ñëw fii nii ñëpp a seetaan di ko gis si biir àddina si Adama Barrow nag mu ngi def kantalaay keetaanam moom mooy suñu leader ci biir dëkk bi lu fi xew fi mom la ñëw mom moom lañ war a mu won ni tay taxaw na elaare wax na lu bari woné na dugal na fi kofi si bir dëkk bi kofi bi mu ngi on alhamdullilah rabbi alamin banjul bi ma nekk di xawma benen bor way wa banjul de mom ñu ngi and ak adama baro parce que wa banjul ñu ngi abay baay bi di rules and regulation si nga xamé ni mom la adama baro sani ci fi kofi bi ni sa ten o'clock soo banjul do gis ñëpp a seen biir niki lolu alhamdullilah wa waa Banjul coopérate nañ lool ma ngi leena sante di leen gërëm ci li ngeen corporate amna ne jambar ngeen nit ñu deggu ngeen nga ngeen bi fii capital city bi suñ défé rek ñeneen nit nañu roy so ñun ñu ngi def te dëkk baa ngi ñoo roy alhamdullilah rabbi alamin ma dellu si waat ci li nga xamé ne moy masque bi ñuy dé sol añ leen ko safaral ñu jéma jappasi masque bi ñuy dé roxa raxa loxo yi suñ amul fu mu dem if doon don't got nowhere to go sit home ñu maintain suñ social distance ñu sol masque yi di raxas suñ loxo yi di make soo ne ñu mun a aar suñ boppa aar suñ jabooti aar suñ néebo si aar suñ xarit yi li ñoo def pour suñ boppa la du pour Adama Barrow de du pour kenn pour suñ boppa la parce que ku feebar bi jàppa jàpput kenn sa boppa yow la jàppa So Lila Safaral, you try, you def by all means, you try 100%, not even 99, 100%. You make sure you avoid fever. The ñu ko mëna avoider more precautions yi nga xamé né mom lañu nijo. These are the safety precautions to avoid COVID-19. So that do ko am te do transmit to your neighbors or friends or any other person. You put on your mask, wash your hands regularly, maintain the social distance. it helps a lot ñu ñoo dimbale so démé tay fu mu nekk ni nga xamé né yàllaa nga def ñom am nañ ko ñu ngi leena dimbalé dimbale dëgg la fu mu nekk ni ñu ngi thousand plus ni ño xamné ñu ko amé ci bir dëkk bi te so gisé lolu gëna am yépp bokk na ci yëfi politique bii nii ñuy saani nii ñeneen gomuñ ko ñaaka ko gom nak mu ngi isi looraange ñaan na leen ngir yàlla ak bi bu leen faalé ñi nga xamé né politique la ñoo jël diko duggal dugal bir mbir mi mbir mi amul politique mbir mi li fi nekka dëgga moo fi nekka ku ko jëppam koo gis soo seetaanee télé boor bu set nga gis ko dee leen dee lu news don't listen to Doudou Ndiaye or Bakary or Fatoumata out there to tell you what to do with your life ñu ngi amee radios ñu ngi amee télévisions papers yi let's rely on those things ñoo ñoo jox correct information suñ bugga because there are other people out there ñoom politique la ñoo use si lii nii pour mun a brainwash éduquer ñeena yi foog ne Adama Barrow la ñoo xeex noo seen boppala la ñoo xeex ba pare yow la ñoo dugal in problems please ñaan naa leen ngir yàlla try leen by all means we abide by with these rules and regulations ñu dimbale dëkk bi dimbale suñ boppa dimbale suñ néegoo si suñ njaboot yi suñ waa kër yi yëpp man mii de alhamdulilah li ma gis Banjul san doy na ma angum xaw ma na si kanam waaye waa Banjul ñoom ñu ngi coopérate ak doole ñu ngi coopérate coffee bi especially coffee bi ten o'clock doo fi gisati foo romba ni ñaa ngi sol seen masque ni ñaa ngi mixoo ne foo romba ni ñaa ngi teg ay bidong di raxas seen loxo yi di dem a ñëw so loolu rek doy na alhamdulilah rabbi alamin maa ngi leen a ñaan ngeen try by all means ngeen def li nga xamee ne moom mooy li war ñu bàyyi yëfi politique politique bi mu ngi ñoo yàqal lu bari when it's time for politics we will politic but at the right now there ain't no politics we are not in politics at the moment fu mu nekk nii si luñ nekkani mooy feebar boo xam ne dañoo jéem a try naka lañ koo saafaralee si biir dëkk bi génne ko fi ñun dañ tuuti de tuuti nañ tuuti boo xam ne suñ alaawee ñeen ay convince ñu ba nga xamee ne ababaayu with these precautions yi nga xamee ne moo ñoo sowe a ah, du baax de seetaat leen ko bu baax a baax a baax ñu teg politique boor bale ne la ñu jéem a def li nga xam ne moom mooy li war fii laa mun a ema yéen nag wasalaam jërëjëf jëf ba beneen yoon thank you very much. moo koy yéen a ko dégg comme du nu mu ko waxee rek nañ abide by the rules nguur gi tere teral nañ ay loi foog ñu jëfee loi yi nga xam ne moom la nguur gi teral moo lan foog ñuy raxas suñu loxo yi di sol face mask ba pare ñuy def social distance ba pare ñu bàyyi gathering yi ñoo def loolu rek moo ñu mën a sooyal loo loolu la borom xam-xam yi wax ñi nga xam ne seen xel màcc si wàllum faj loolu la ñu wax lan moo ñoo mën a génnee lu si feebar bi foog ñuy raxas suñ loxo yi di sol suñ face max ba pare ñuy def social distance loolu rek a ñu see mën a génne. du bala ñoo dem gis nañ ne président bi joxe na speech ci am na benn word si wàllu very important Gambian si ñun ñëpp dañu war a bokka booloo nekka benn ñu mun a xee dis Covid 19. lan nga am pour wax si loolu ni nga xam ne speech boobu moom nga xam ne moom la tey président joxe. dëgg dëgg man ni ma ko gisee speech bi was a very strong speech naka nga gisee tey si gàttal mooy wóor bi nga xam ne war a join hand for this COVID 19 bi nga xam ne moo ñu sonal ñun tey Gambia naka nga gisee naka nga jàngatee waxam boobu noonu moo maanaam yow si sa gis-gis. parce que mbooloo mooy doole soo déggee ñu ne mbooloo mooy doole. Adama Barrow State House la nekk moom kenn mënut a xeex lii. moom bosam saytam fi mu nekk foofu la mun a xeex waaye suñ bokkee ñun ñëpp moom mu jóg ñun ñu jóg ñu bokka kon lu maa wax rek dama see delluwaat rek mbooloo mooy doole suñ wookee out together things dañoo sog suñ ko defee nag individual isi yëfi politique si biir foofu noonu dafa xaaj because of lim ñu wax lu set la mu ne ñu ñëw together ñu fight te suñ ñëwee together ñu fight feebar bi dinañ ko fi génnee xeex bi moo wax noonu ñu ñëw together ñu fight mooy ñu make sure ñu collaborate together ñu abide by with the rules yi nga xamee ne moom la ñu jox pour ñu mun a sowe suñ boppa parce que dafa génnee loi sarta yoo xam ne moom moo ñoo mun a sowe sarta yooyu mooy lan mooy masque yi ni jógeewu si moom mu ngi jógee ko si ñi nga xamee ne ñun ku fis feebar si ñu nga dee dem mooy docteur yi docteur yi ñooy wax ni ñu ne ñuy sol face masque ñuy raxas suñ loxo yi ñu make sure ñu maintain social distance ñu wàññi suñ demukaay ñu bay gadarim bu mag bi ataya yu bari kaas fi ni di safi fii kale kale yële noonu ñu maintain ñu mu jëm ko wañi parce que si di dee fever bi la so suñ fe lulu dafa war di incha allah dinañ xeex xeex bi té dinañ xeex fever bi mu gëna fi ci du gëna gaaw waye suñ féké né ñu ngi isi politique bobu nonu ci bir motax mu ngi waxa ñun so gisé muy waxa ñun parce que daf ñu bugga suñu bugutoon du waxa ñun waye so gisé tay mu taw paré njit la Leader, a leader there. def. He is not a ruler. He is not ruling us. He is a leader. We put him there to lead us to somewhere else. So mu achieve aims and objects and mu ngi def li nga xamee ne moom moo war. So ñu try by all means you come together and work together as a body and then we will be able to overcome this COVID-19 in system bi society bi du mun a am doole mukk lii la Adama Barrow di emphasize on lii la ñoo ñaan pour ñu mun def lii la ñoo ñaan pour ñu sartal def len lolu du ko defee suñ woogee together mbolo moy dolé lépp dina baax wasalaam jere. jëf mbokk yéen a ko dégg ñu no mbolo moy dolé lu benn nit mun ñaara ko ko daxa mo juróom wa groupe moo ko ko daxa mbolo mi comme ñu ko waxé ñu ko suma mag waxee muy du jaay nañ tray ñu raxas suñ loxoy di sol suñ fess mask di def social distance ba paré ataaya yu bari ñu ko wañu mbir gi dafa leer ñu ne lan stay at home quarantine yourself stay at home dafa yomba loolu rek la mun a sawee loo si feebar bi nii nga xam ne moo lëmbee àdduna bi du tey bala ñoo demaat du ñu delluwaat rek si li nga xam ne moom la nit ñi di wax social media bi yëpp ñu wax mooy lan président bi dafa war a génn wax président bi yàgg na wax wax na fi several times balaa pandémique bi di nga xam ne di ñëw di jéggi dayo fii nga xam ne mooy biir Gambia fii nii wax na fi fii affaire pandémique bi first time joxe woon nañ fi lan state of emergency ñu lockdown dëkk bi mu génne war lan li nga xam ne mooy lan food package release jox ko nit ñi jox ko ñi nga xam ne seen loxo jox te seen gannaaw ñu si mën a am on si loolu rek doy na ku nekk du bala ñoo dem ne nit ñi ñu ngi wax ne président dafa waroon a wax dafa war a wax muy affaire covid 19 man mu ne président wax na si affaire covid 19 bi bu yàgg

dafa am ñaar bu si nekk benn boo xam ne dafa ñëw pour jagar benn boo xam ne dafa ñëw pour yaaxa bi dee yaaxa nag mooy li ma wax rek they brainwash educating you people because of they know some of us are weak so they come out with some certain thing ñi ngeen gën a óolu ñoo leen a nax ni ñi ngeen gën a óolu ñoom ngeen a nax nii Gambian bi na dafa teel a óolu ni torop suma maas gi su ma ñëwee suma benn diplomate yooyu noonu whatever it is rek sol karwaat ñëw toog wax la wax ju rëy rek nga ne kii la dañ leen génn si loolu comme li ma leen a wax ñuy dee déglul suñu boppa Adama Barrow wax na support nañu fi te mu ngi support right now tey mu ngi wax bay advice mu ngi urge to the stakeholders yi pour ñu jéem a support nit ñi si biir dëkk bi maa ngi déglu léegi léegi léegi nii mu ne na stakeholders si tamit jéem a contribute mu ngi def li nga xamee ne lii da loolu la war a def li si des si suñu loxo la nekk mooy mbooloo mi mbooloo mooy doole añ leen jéem a saafara lii nii si suñ biir dëkk bi te nuñ ko mun a defee mooy ne ñu toppa suñ président bi lu mu ñoo wax sant yàlla ba bari tey fii ñu taxaw nii ah ñun suñ boolee tuuti rek dinañ mun a xeex xeex bi mu génn fi dëkk bi set na alhamdulilah rabbi alamin am na yu bari yoo xam ne xëy na am na feebar yu bari yu waroon na laaxu yeneen place duñ fi mun a laaxooti ñu ngee dem seen yoon so li si des rek si suñ loxo la nekk dañ leen ñëw together we make so that we come together and fight against this. This is called COVID-19. I don't know where this COVID-19 is from. Maybe it's from Allah subhanahu wa ta'ala. Why you luñu war rek mooy ne ñu make sure ne we come together as a body. Suñ ñëwé together rek dinañ ko fight té suñ ko fighté dina fi gëna. Loolu lañu Adama Barrow sant añ leen ko def mu gëna yomba. Ñaan naa leen ngir Yàlla Gambian si. Ñaan naa leen ngir Yàlla añ leen come together ñu fight fight bi mu jeex. Président bi yàgg naa wax de dafa des si ñun politique moo si duggoon moo si rax. ngay politique di politique nak be fum mu nekk mu ngey ñew tu riyal bi ko so gis nañ ko bam ko wa fekk na ben nit amu ko fi ñu tok ben am ko bala ñoo xam ñaar ñeta tay ñu ngi thousand plus so kon ndoog ñu dega let us not be here and deaf and he see and blind we are human we use our own senses and reason things don't let people to come and tell you what to do si kaw loo xam ne amut wasalaam jërëjëf mbokk yi yéen yena ko da fay yomba nit ki wax rek nga mun ñun ñooy war a dégg ñun tamit liñ fee wax yëpp ni ngeen ko déggee xel te bañ ko jàppee xol taxawuñ fi kuy wax comme lay lu wax lu neex nit déedéet dañoo wax li nga xam ne moom lañ gis moom lañ dégg moom lañ xam wax dëgg neex yàlla nit ki lum bon bon bon nangul ko leena ne ko ne laay lam rafet nga président tey wax dëgg neex yàlla yàgg naa wax si affaire feebar yi fekk sax amaguñ benn ñu door di am benn door di am ñaar léegi ñu ngi lan almost thousand nine thousand nine hundred and something Gambia feebar bi lu am la ñii wax ne amut xëj na daf leen talut wala xëj na gisuñ koo xam ne daf daf ko dar comme niñ ko waxee rek boo koy lan moo ñëw mun a musalloo si feebar bi mooy lan covid 19 bi lan moo ñu see musalloo foog ñu def suñ face mask yi di raxas suñ loxo yi every time ba pare ñu def social distance ba pare ñu try ñu quarantaine suñ boppam quarantaine suñ boppam mooy lan foog ñu stay at home loolu rek moo ñu see mën na mu calloo lii la borom xam yu wax li nga xam ne loolu moo na mu calloo si feebar du mën na ñoo demaat gis nañ ne nit ñi comme ñu delluwaat si couvre bi nga xam ne moom la président bi taxawal ci biir dëkk bi gis nañ ne si sa biir wax nga ne waa Banjul respect nañ couvre-feu bi loolu dëgg la yow du tey naka nga gisee couvre bi nga xam ne moo nekk biir Banjul Covid bi dañ ko indi pour ñu gën ñoo mën a dimbale Covid bi ñëw pour yaaxoo ñu de daf ñoo gën a dimbale parce que dina gën a méeg Covid bi su fi duggee dafaa gën a tax nit ñi social distance yooyu noonu ñu jéem a putoon masque be whatever it is dafaa wàññeeku because que mën loo putoon masque bi 24/7 social distance waaye soo stay home ten o'clock ñëpp tasaaroo nañ ñu meeg soo ne ko defee gathering bu mag bi because que guddi la gathering bu mag bi day gën a am gathering bu mag boobu noonu Night club si pop si the bars here, si know, no, yep. most of them si guddi lañ dee gën operate Then nit ñi dañoo bëgg di dem place you know. so with the help of the coffee dina minimize Inshallah, allah rabi covid 19 bi si sun biir dëkk bi moo isi covid bi covid bi mean, ah, ah, ah, I, ay coffee bi it is not for punishment it is not for punishment ma repital leen ko punisuñ kenn pour coffee bi kofi bi pour aar ñu la mu sowe ñu loolu mooy kofi kofi foo ko dégg pour aar nit ñi la dañ ñu aar pour buñ mun a am li nga xamee ne mooy seytaane bii nii juddu si suñ biir dëkk bi so ne make sure ne ñu abide by with the rules and regulations of this coffee ten o'clock let everyone stay home stay indoors don go out please maa ngi oo ci ñeneen nit ñi nga xamee ne ñu ngi outside Banjul because of Banjul laa mun a wax lii xew si duma ko dee xam waye banjul bi ni ma nekka nii uur na ma ne guddi moom wala ten o'clock sa do dee gis kenn ñëpp tëdd nañ inshallah allah jaba ñëpp ngi indoos suñ tamit ñu ngi indo do gis ken sibiti so ndok wa banjul ngala ma jërë ngeen jëf ma ngi leen a di leen gërem amu leen morom wa salaam mo xey kon a ko dégg mu ne wa banjul ngala ma jërë ngeen jëf kon niñ ko niñ ko waxee ni mbokay yi tra ñu respect fi bi nga xam mom la loi bis tiral ten tenaclop bëgguñoo gis kenn si mbedd bi loolu la loi bi tëral kuñ téye ñaata ngay fay muy taw 5000 dollars yi loolu am na feneen fi mun a dugal wala am na feneen yeneen gaz yu mun a fata si kër gi si famille bi du bala ñoo demaat yow lu mu bon bon xëy na ñuy seetal xamuñ la you were security officers yaa ngi woon si Gambia National Army bi la nga am puy wax ñi nga xam ne ñoo security personnel ñi nga xam ne ñooñu dañoo génnee pour ñuy dem puy def kofi bi nga xam ne puy patrol lan nga am puy wax as security officer woon nga security si eh, ma ñëw si security officer si tuuti man mi security man laa woon I was with the Gambia National Army I served good six years with the Gambia National Army. I served the Bad Confederal, did a lot of things, security si biir Gambia Security officers yi maa ngi leen a ñaan ngir yàlla ak yónnent bi. Do not take bribes from people. Make sure you abide by with the rules and regulations. Make sure you perform your duties. This is no joke. It might be your own. It might be your own ki nga xamee ne dugal in pits o moom ngaa jeopardize life am xaalis neex na lool waaye balaa enjoy xaalis nga ang wér gu yaram am fan bu gudda soo ko fekkewu doo ko enjoy soo ko mun nga koo jël tey si ki nga koo jëlee you never know so perform your duties make sure ne ngeen abide by with these rules then then they can yëpp you take an oath remember you took an oath bi a sol uniform boobu noonu nga ne da nga ñëw pour aar sa deka. aar sa dëkk make sure ne nga sowe sa nini sa o nini. Security sécurité am doole la de lu yala fon kala sa. emut bir adina, how manda ham xam ngeen si loolu laaj leen borom ham xam yi dinañ leen security man so performing nga def sa job well done so dee yala bless la billahi yalla daf la fay adina fay la alakhirah dul moy security waye so toge tay dun Ndiaye dem nga gis ko mu def ni mu gene ben 200 jox la because of you feel that you got a difficulties at home you want to give a fis money or oh, sa dom oo oh, sa jànha oo oh, whatever it is loolu warta taxaw de setan len ko bu baax a ba fi ngeen ko defé nak yalla rek afa nek ak yeen waye set len si sen own nit ñi ki nga fek may bi yo own hamuloko. ki nga soowee noonu muy jël 200 dalasi di la ko jox wala 500 dalasi mu dem yoonam kooku noonu mun naa nekk ne moom mooy joxe ji sa sa mbooka sa doom sa anything feebar boobu noonu soo ñaan naa leen perform yoo duties correctly lii du yëfi caaxaan ñu bàyyi di jël bribery bribery baaxut yàlla bëggu ko yónnente bi bëggu ko bàyyi leen bribery jël leen ngeen make sure ne ngeen perform seen duties yi loolu mooy di gën a important this is no joke this is for real you can see it worldwide everywhere ku sa saa yoo radio TV Linga nga dégg rek mooy this pandemic the corona is in everywhere so security officers yi yéen a mun a dimbale nit coffee bi you make so that ne ngeen make sure ne nit ñi buñ because suñ leen nit ñi bribe sumala ma la bribe ëllëg dama génnaat the same thing xam 5000 neexut a am Why could génna nga génne 5000 dalasi mu dem luabi si loi bi ko defati su ko kenn déggee du ko defati waaye su nit rombee nga ñëw mu jëlee benn two hundred dalasi mu jox la nga jël ko nga bàyyi ko mu dem yow yaa ngi gën a yokk a feebar boobu noonu si suñ biir dëkk a ah kuñ si téye nag di nga am problème de waaw kuñ si téye di nga am problème te let me tell you one thing there are people on the also ñoo xam ne ñu ngi leen a xool ñu ngi leen a bàyyi xel bu baax a baax a baax ngeen xam si loolu wasalaam jërëjëf. du balaa ngaa dem rek waat comme niñ ko waxee gis nañ ne sécurité yi nga si si biir wax mu ne sécurité dañ uh, it has been a um, reputation in Gambia that the securities they take bribe. Wow, I will say that. Musuma bribe security man. Musuma gets ko security man. Why they gonna call you yeah, security then they jail bribe. So they may in their patch of life. They dig out in jail bribe. Wow, muna wahne then they jail bribe. Because man fima de kafini. I can see every day, every time, securities will come around, perform their duties, but at the end of the day, Nino arrest dañoo them, within five minutes Nino are on the street. And liñ dee they are all chargeable offences. But it is not working. Our security is failed. You see, security is failed. Gambia Security personnel are not doing their job correctly. They fail their own people bi. fail their own dëkka. fail their own Nino. li ko cause I don't know waaye bëgg a xaalis dem la gënal sa bakkan boobu musiba la dañ leen try by all means ñu jéem a real to ourselves loolu dafa important security def leen seen job mu correct lii dafa nekk loo xam ne diggante bakkan diggante dunda ak dee la lii du yëfi caaxaan wasalaam jërëjëf du sécurité yi nga ne dañ jël bribe waaye nekku na sécurité yëpp a jël bribe du

benn gerte bu yàqu si biir sàkku soo ko fa génnewul rek day yàqal di si des yëpp loolu mooy problème bi soo du ko defee yaaxa yaaxal moom dafa am doole su benn yaaxoo rek mun naa yaaxal lu bëri soo benn benn yooyu noonu añ leen taraay ñu génnee leen si biir si biir sécurité personnel si dëgga la sécurité yëpp corruptuñ de am na ñoo xam ne they are doing their job correctly ay know that boobu moom du xaaj du jee seen biir waaye am na ñoo xam ne tamit ñu ngi yaaxa seen biir ñu meeg soo ne ñu génnee ñooñu noonu si suñ biir yéen ñi nga xamee ne yéen a jóg nekk foofu noonu lii da si njiit yi ñi nga xamee ne yéen a fa nekk doo tey doxal luwaa bi mais soo leen ngeen génnee ñooñu noonu si suñ biir du ko defee dëkk bi mun a dem si jaama nit ñi mun a am jaama wasalaam jërëjëf. boo koy yéen a ko dégga mu ngeen ko dégloo xel te bañ koo dégloo xol lépp luñ ci wax nekkul ne dañooy sànni xeer wala o dañoo tuumal déedéet liñ gis wala liñ gis loolu lañoo wax liñ déggal loolu la wax mu ngeen te bañ ñoo dégloo xol comme ni ma leen ko waxee rek ñu ngi nii fiiwaat Allen Street foofu nañ nekka koñ bii nii léegi macha allah bu ko na ak jamono bi ni meloon fii moto du fi mun a romba kenn du fi mun a romba Allen macha allah ñu ngi jaajëfal loolu ñi nga xam ne ñoo defar liggéey bii nii muy ñan muy président Adama Barrow ak ñan contracteur bi muy kan muy liggéey bi macha allah biir Allen Street comme ni ñu ko waxee rek ñu si affaire Covid 19 bi muy lan coronavirus bi si loolu lañ nekk ñun ak si yëfi Covid bi naka la moo demee biir Banjul wax naa leen ko ne leen soo leen bëggee xam moo mboolem loo xam ne luy daw Banjul la wala Covid bi naka la moo demee Banjul fan nga ko mën a amee muy Sahel Network TV mooy YouTube channel nim bi Facebook page bi mooy mooy lan nim bi muy lan Sahel Entertainment Studio muy Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen comments yi comme ni ma leen ko waxee ñu ma tey nag ñu ngi nii taxaw sama benn broda bi nga xam ne muy du Ndiaye yàgg na yàgg na di gis Banjul naka la moo demee xam na Banjul bu baax ba pare nekkoon na security officer biir Gambia fii nii yàgg naa saaf Gambia du ñu delluwaat rek si li nga xam ne mooy COVID-19 bi nga xam ne moo sonal Gambia si tey still now people don't believe ne feebar bi is real am na si ñoo xam ne gum nañ ko am na si ñoo xam ne gëmuñ ko. waaw na sax naka lañ mun a def. wala yan advice nga ang kuy mën a jox ñi nga xam ne ñoo nekk si nguur gi wala yan advice nga muna a jox ñi nga xam eh, ne ñoo nekk si saytu ministre of health yan advice nga am si nga xam ne mooy entire Gambian si ah alhamdulilah nga gis Gambia ah, fu mu nekk nii Gambian bi ñoom ñu bari de a ah, now getting aware because of gis naa every day niali dina am moto bu romba ñu am ñoo xamne dinañ ci nekka ñuy wër ci bir dëkk bi di eda nit ñi boobu si luy dimbale nit ñi lool la parce que toog si biir kër gi tamit am na ñu ñu bari duñ dee déglu radio ñu bari duñ seetaan TV waaye ñu ngi jël beneen step step bi mooy lan ñu ngi jël moto yi di fa fix mic di jox ay nit mic gi ñuy wër si biir dëkk bi di aida nit ñi di leen waxal pour ñu mun a gëm feebar bi feebar bu am la ak naka la ñoo aaree seen boppa mooy comme li ñu wax fii nii rek aar bi mooy bu doon ne hassa loxo yi regularly nga make sure ne no handshaking ba pare nga make nga maintain the social distance go out when it is necessary when it is not necessary forget it make sure you abide by with the under the rules and regulation for under under under security si nga make sure ne bul ama security affaire soo stayee si kër gi doo ama security affair. doo fay five thousand dollars lii daf ñoo dimbale si biir dëkk bi waaye su fekkee ne yaa ngi gis ne lii yëfi politique la di gëmuloo ko munta am lu mu garaaw garaaw nag ak lum mu métti xam naa ne benn tey dina am ñoo xam ne dina ne lii amut waaye ñaan naa leen maa ngi leen a ñaan àndale seen xel seen njaboot ngeen am seen kër gi ñu bàyyi politique bi ñu tegee ko boor ñu góom ne lii lu am la bu njëkk ba su dara di am di sonal waa réew mi baadoo la dee sonal waaye ñëpp a nga gis ne lii du feebari baadoo feebari baadoola boobu yàgg na si suñ biir dëkk bi fii ay ñoomin malaria ay ñoomin you can hamut. this got nothing to do with that lii mu ngee jàppa président yi di jàppa ay prime ministers di jàppa diplomats di jàppa everybody even Gambia fi dafa jàppa suñ vice président even Adama Barrow dem na testing the last time and he was clean ñu make sure ne ñu abide by with the rules coffee order 10 o'clock make sure you are in house I mean you are indoors don't please go out Thank you very much. Wassalam. Jenoko Degandor, coffee order, 10 o'clock, make sure stay at home. Understand? Quarantine yourself. lan lañ mën a def pour mu tax si feebar bii space, Max. la foog ñu fay public gathering ni saa yi ñu toogee social distance Do ñu ñëwaat si affaire curfew bi gis nañ ne ñu ne marché yi dañoo ibi suba ba tout nan nga gisee loolu noonu yow si sa nag moo ubi waaw suba betu okolog o'clock si safari febar bi la bokka dama li ma Gambian rek Gambien bi it is not for punishment Neku di punish kenn soo gisee ñu ne betu okolog pour ñu rek in partie febar bi la ñu make soo ne ñu avoid febar bi moo nyu ñu isi rule si nii yëpp dara lu si ay parce que loo xam ne bagam balaa ngaa dem ngam nga am sa wér gu yaram soo dund doo mun dem loolu yëpp mu ngi si soo ñu seetaat suñu boppam marché bi du punishment two o'clock dañ daan dem marché be kañ fekk feebar amut tey suñ toogee ne two o'clock ñu stay am na ñef stay home marché amatul kon nga xam ne am na lu xew sarta boobu noonu dañ am pour abide bi with those rules and regulations loolu moom moo loolu moom moo fi nekk du ko defee feebar bi su fekkee ne sax mu ngi fi sax du mun a am doole te soo dem marché ñaa naa leen ngir yàlla seen face masque yi ngeen make soo ngeen sol ko ngeen meeg soone ngeen sol ko ngeen amaale musuwaar soo leen a dem soo leen saxatee ngeen saxat si seen ko musuwaar yi loolu lu important la bu leen joxante loxo ngeen dem marché jënda li ngeen a jënda ñiy jaay ji marché ngeen meeg soo ngeen maintain seen social distance yi ngeen sol seen masque soo leen a jaay soo leen fa jógee ngeen ñibbi kër ak jaama ndax ñu mun a gisee si ay ati ati ati ati at yuy ñëw boor bu set ñu taagee ñu nit fu mu nekk nii rapport bu set ñu tàggee la koo xam waxuma la koo xamu de bu njëkk ba dañ laa leen ni réer na ngay xalaat kan la réer waaye fu mu nekk nii FD dañ laa tàggee koo xam te óor na ma ne waxuma la yëpp de waaye li si ëpp yëpp it is related to this covid 19 soo ñaanaa leen ngir yàlla ñu meeg soo ne ñu abide by with the rules yi nga xamee ne moom la fi loi bi teg doomu adama day respect loi soo mënta respect loi rek yow gëmuloo yàlla si boppam parce que yàlla si boppam mbirum mbiram loi la so please man leena ñaan li moy li am ay leen ko maintenir nonu marché bi so gisé ñu né 2 o'clock pour ñu mënu safaral fièvre bi ñu fi gëna mëna mun a parce que marché bi public place la nga war fa bay nit ñi suba ba jant gi so lu bari mëna na xej xëj suñ ko défé ba 2 o'clock at least minimize bi di précaution si nga xamé ni mom lañ ñu jox pour ñu adopt ko ñu dimbal wa salaam yéna ko déggal marché yi. five yëpp tuur la loolu lan pour ñu muytu rek daw feebar bi loolu rek lañ mu loolu rek la ñu mën a def du am na ñi nga xam ne ñi ngi compilé ñu ne marché bi waruñ koo tëj waruñ koo tëj ci waxtu bi nga xam ne mooy five ba two lan nga am puy wax si loolu compilé la si si loolu noonu yow mi nga xam ne africain du ñàkk rek nga gis kuy waaw xam nga Gambia bi dafa nekk dëkk boo xam ne there are some people they walk from hand to mouth loolu mu ngi ci suñ biir I understand all those things xantu maaw tim moo fi nekk ñoo xam ne dañoo jóg suba pour ëllëg lu ñoo dundee xëy na two o'clock dafa gaata ak ñoom waaye ku ma waxaat ko rek soo feebaree doo mun a dem marché soo fi génnee doo mun a fekkee soo lu métti lii nii yaagut ñu muñ ko moo gën ñu jéem a force suñ boppa si loo xam ne ëllëg danga see jëlee loo xam ne daf ñoo lor lor sa waa kër lor sa dëkkandoor sa ay xarit ak sa ay njaboot moom moo tax ñu meeg soo ne ñu tuwakuloog ñu abaay baay ñu génn marché bi am na ñoo xam ne nag ñu ngi ko am waaye politique bi moom moo tax ñuy see am na ñoo xam ne tamit amuñ understanding maa ngi leen a ñaan ngir yàlla ñi amut understanding boobu noonu ñeen jéem am understanding bi parce que am na ñoo xam ne du politique moo tax ñu ne marché warut a tëj am na ñoo xam ne nekkul ne amuñ xaalis moo tax ñu ne marché warut a tëj waaye dañ fiil ne rek ne xëj na lii du dëgga waaye ñaaka dëgga boobu noonu amul de li am li am la àddina bi yëpp la lii affect boo dem foo wër àddina si ñun na Gambie dafa tuuti maa ngi leen a waxal ak xel Gambie dafa tuuti ñu make soo ne ñu abide by with these rules ñun bariwuñ we are less than two million people we are less than 2 million people ñu ngi ay compter thousand people plus fu mu nekk Gambia thousand nit plus moo affected with this coronavirus so ñaanaa leen ngir yàlla ak yonente bi marché bi bàyyi leen mu tëj clock. o'clock déglu leen ñoo xel bu leen ñu déglu ak xol ak xeli politique boobu daf fi jeex ñaanaa leen ngir yàlla wasalaam mbokk yi yéen ko diga mu ne ñu te bañ ñoo xol luñ ci wax yëpp nekkul ne dañoo sànni xeer wala o dañoo politique déedéet feebar bi buñ ko jëlee politique feebar bi du politique feebar kenn du ko politique sëñ bi ngir yàlla ak yeneen bi feebar kenn du ko politique su fekkee ne dañ ko do politique kon ñu si bëri kon tey mun naa ne win nañ feebar bi is réel covid 19 lu am na coronavirus lu am na lan moo ñu mën a dimbale ci feebar bii nii pour ñu mun si mucca mooy lan ñu sol suñ face mask yi di raxas suñ loxo yi ba pare ñuy bàyyi public gathering yi ñuy def social distance saa si ñu toogee li man li ma dee gën a wax mooy ne lan suma mbokki ndongo yi ñi nga xam ne ñu ngay toog si buu yi ñi ñi nga xam ne ñu ngay toog si gëto yi saa yiñ toogee ñu def social distance ba pare su ko jaree sax su ñoo naan ataa ñu isi ku nekk sa kaasi boppam na si café Touba yi ñu saaf la si nga naan ataaya loolu rek moo ñëw mën a muccalloo si feebar bii nii comme ni ma leen ko waxee rek ñu ngi nii fii Alain Street biir Banjul wax naa leen ko ne leen soo leen bëggee xam li nga xam ne mooy curfew bi naka la moo demee biir Banjul ñu ngi leen a ñaan ngeen seetaan Sahel Network TV mooy YouTube nii bi Facebook page bi mooy lan Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seen seen commence yi comme ni ma leen ko waxee du ma delluwaat ak du gis nañ ne ni booy suma mbokki ndongo yi ñi nga xam ne ñoom dañ dee riite wante ak police yi affaire yi lan nga am pour wax si loolu noonu yow mi nga xam ne yow as a security officer as a parent lan nga am pour advice ñooñu noonu lan nga am pour si loolu ñi nga xam ne dañ dee wante police ah maa ngi leen a ñaan ngir yàlla xam naane ne benn tey rek am na nit ñoo xam ne moom si suñu biir waaw comme waa Banjul they are really cooperating with this coffee thing in Banjul waaye comme ni ko waxee rek fu mbooloo nekk rek di nga am ñeneen nit ñoo xam ne wel dañ noo soboon am na benn benn ñoo xam ne ñu ngi rite wante police yi waaye ñaan naa leen ngir yàlla ak yónnente bi seet leen si seen boppa ñun bëgg nañoo nekk fii ñuy gisante si lu yaaga yaaga yaaga yàlla may ñu fan bu guddaa wér fan bu guddaa ak wér gu yaram na da nga koo safaral sa bopp yow yaa koo defal sa bopp yàlla amee na waaye mun nga koo safaral sa bopp da nga uti mu am bàyyi leen di rite wante ak sécurité man yi nga xam ne ñoom loolu moo leen indi si biir dëkk bi yéen la ñoo dimbale dimbale wuñ kenn yéen la ñoo dimbale ñu ñu ñu ngi waroon a tëdda si seen ñooñu ay borom njaboot lañ ni ngi leen a gis noonu sécurité officers yooyu noonu waaye ñu ngi bàyyi loolu noonu yëpp pour ñëw pour soowe leen nekkul ne dañ leen a ay cat and mouse game this is no cat and mouse game this is for real stay at home when coffee time is on bi ko defee ngeen mun a sowe si feebar bi soo leen soowee sowe ngeen seen waa kër sowe ngeen seen négocier seen xarit yi seen njaboot yi loolu mooy li am bàyyi leen di rité wante police yi toog leen si biir kër yi du jog suba be janta gi soo ba ten o'clock lo se mun ta faj mun lo ko fajaat xalaataat leen ko bu ba suba be janta gi soo ba ten o'clock lo se mun ta faj mun lo ko faj fum nekani rabbi alamin we can stay at home dëkk bi fum nekani So mu ngi set soo bi rafet Adama boro has done quite allah lot things for us this man is a true leader leader leader there def mu ngi nekani nit ko xamne lu nek rek is transparent mu ñoo sun dekabi. bi from Koina to Katong waajange develop it's not only about Banjul xëy na moo tax may dee wax news They read papers The di gis lan mooy xew si biir the man is doing real good New deal politics. New tegee ko boor there is no time for politics. te waa ji politique pateem bi mu ngi ko NPP mu National People's Party it is the second of its kind in Africa it started from in South Africa pour dëkk bi Nelson Mandela moo génnee this thing it is for the whole country it is not only for Gambia uh, uh, for Adama Barrow's party or UDP or any other party it's for the whole Gambia Gambian bi la ootee mu ne développement ni Gambia moom dafa ñëw pour yóbbu Gambia si kanam so ay nañ ko jàppale su kooku ñëwee di ñu sowe ñu jéem a naka lañ ko jàppale all then yoon bi ñu taxaw fii ñun tey tey yoon for the past how many years I can say since time Jawara tubaab bi bi mu fi li fi bàyyoon ba booba yaaxu dara amatu fi especially Banjul bii nii right now ñu ngi taxaw place boo xam ne macha allah first class road like Europe agaamuñ fa de waaye ñu ngi fa ñu ngi ah, ñu ngi climb ladder si one step at a time dinañ fa àggi ji bés Rome was not built in a day luñ bëgg a mu def yëpp nag du happen su ne ñu yaaxa yoon bi tey tey tey tey mu yaaxu waaye pour jagar neexut añ leen patient ñu may ko time mu yóbbu ñu fi nga xamee ne foofu lañ bugga loolu laa leen am pour wax leen waaye jàmbaar la nga ce ngaalaama Adama Barrow mu ngi def li nga xamee ne moom lañ bugga si biir dëkk bi bu Gambian be nekk see and blind here and deaf we were here, especially Wabanju, we were here yesterday crying every day, mosquitoes biting us, dirty streets and dirty gutters and everything now we got someone that come to fix things for us waaye ñoo ñu ngi ñu ngi jéem a we still trying to make the devil out of him that's not fair that's not fair And then seetaat bu baax a baax a baax a baax suñ boppa ñun ñooy ñan ndax lii lañ bugga ko salaam jërëjën thank you very much mbokk yi yéen a ko dégga wax dëgga ne yàlla ñun waa Banjul dañ war a sant yàlla si lan Banjul ku gisoon yoon yi ni mu meloon comme Allen Street di likes of Allen Street di likes of Fitzgerald di likes of I mean Grand Street di likes of Ken Street yooyu yëpp defar nañ ko wax dëgg neex yàlla gàcce ngaalaama Adama Barrow wax naa leen ko sama biir wax ni nga ñu dégloo xel te bañ ñoo dégloo xol nit ki wax naa leen ko ne nit ki fi def nañ ko nañ nangu ne lu mu bon bon bon nit lu mu bon bon nangul ko ne ko bàyyi na fi lu baax adama baro am na lu def si biir réew mi nag banjul def wat gambien yëpp du wax ñu banjul démba naka la meloon banjul démba naka la meloon ah banjul démba ñu ñu yëpp bari fekkee nañ ko fii nii waxuma la wel tey fu mu nekk nii suñ jigéen yi especially suñ jigéen yi ñoom ñoo si gën a kontaan ak ñi nga xamee ne boor bu sedd dañoo xëy di dem liggéey ji bu ñëkk ba sooy dem liggéey ji sa foog naa da ngaa sol an ordinary shoes and then with maybe an ordinary I mean clothes to, to go to work So again, on to solve something else better. Because uh, if not balanga aga, you'll be covered with mud, especially during this time being nekani, the raining season. Our women are going to the market every day, putting on smart dress. Nice, look nice. Them see marché bi dem ñëwa do tilim. Dëkk bi nu meloon xam nañ ko dama toog suma bunti duma door suma boppa. Get na jënd muntayga, get na jënd bob spray. Everything is dying bit by bit. waa ji mu ngi def nanka nanka nanka nanka nag mooy jàppa golo ñu ne bukki lum ñaaw ñaaw wax ko ne sa bëñ weex na moom moom moom bëñ bu weex lii dañ am pour bi content with ourselves ba pare ñu nekka ni ñoo xam ne dañ war a déggu yàlla déggu la bugga suñ déggoo rek yàlla def ñu jógu si kanam suñ amee ku mel ni Adama Barrow mu ngi ñëw di ñu dimbale dimbale suñ boppa naka lañ mën a dimbale suñ boppa mooy ñu dimbale ko mu yóbbu ñu fi ñu bëgga ñu buy di imiter law, xam ne amut and then I'm sorry because then leen dee brainwash this so then, fu nii ñoo amee most of the time you're watching America, watching whatever it is. We cannot just be like America today, today, or Europe, or whatever. It takes the European maybe 60, 70 to 100 years to be where they are today. Think about it properly. They were not sitting folding their hands. It took them many years to be where they are today. And then we also have to start from somewhere else. We cannot just jump and be where they are today. No. from Pumjare, we start from basics. And this is basic because there was nothing here. We have to start from basics. su fekkee ne dañ fi bàyyoon dara loo xam ne dañoo ñëw sax continue continuer ñu waaw there was nothing here so why did he come to start mu start nu mu ko startee ku nekk gis na ko nu develop so let's also get something low hamne ne dinañ ko ko contributed mooy lan ñu ñaanal ko fan bu guddaa wér yaram ñu make sure ne next election we give him our cards to be here we want him to be here because daf ñu woon loo xam ne moom moo ñoo mun a yóbbu si kanam yàgg naa fi man tamit tuuti de since de Jawara's days bi maa nekk soldat du time ya Jammeh de man time Jawara laa nekk soldat du woon time ya Jammeh man maa ya Jammeh mu ngi si gendarme bi maa ngi si armée I was in the army when he was with the Zandam. He came departmental transfer from the Zandam through military police mu army bi mu fekk ma fa. I know him well. so man maa moom dañ safal Jawara moom mu ñëw mu nekk fi ma gis nu mel Adama Barrow ñëw he is doing better. he is doing good for us. Banjul nu meloon démba alhamdulilah rabi alamin waaye yàlla moom yàlla xeeb yokka waaye Banjul was in a stake Banjul ku duggoon Banjul su sénégalais jaalee baara ñëw ba àgga si féeri bi dañ dee laajte fan mooy Banjul trust me tey suñ jaalee dañ dee gis ne fii mooy Banjul kenn du la ko dee wax because you've seen the development you see what's going on the man is doing something for Gambia we cannot just jump from ladder number one to number hundred we have to start from ladder number one and climb one step at a time su yage dinañ fa aga let's sacrifice for our kids ñun dañ dee bëgg a lu ñu liggéey rek ñu njëriñoo ko tey tey tey tey non soo gisee tubaab yi mel nuñ mel tubaab ya jagar Europe ñooñu dee nañ bu yàgga let me tell you that ñi jagar Europe ak America ñooñu dee nañ ñooñu fekkee wuñ ko waaye they sacrifice for today so we also have to sacrifice for tomorrow for the better of our kids suñ kids yi mun a njëriñoo ko suñ seti yi mun a ñëw xam ne suñ maam yi liggéey nañ fi dara waaye ñun dañ dee bëgg a ñëw ñun suñ boppa ñu romet ko dugg ko suñ biir poos bi moo tax pour ñu développe daf dee nekk problème ku ñëw sa bëgg a ñëw dimbale sax dañ ko dee jox problème so dis man is doing good alhamdulillahi rabbi alamin yàlla is ñu someone like him and then we will bi behind him we will make sure that he will be here maybe for di next 10 15 to 20 years loolu moom des na si moom su di moom muy def lu baax rek di ñu ko fee teg

kon ni ma leen ko ñu ngi ni Allen Street ba léegi di waxtaan ak suñu broda bi nga xam ne muy kan Doudou Ndiaye Allen Street kon ni ma leen ko waxee ni mu meloon dafa jéggi daya kenn mënu fee noor ma temps mi nawet especially temps bu ñu nekk nii sooy romba sax da ngaa dox si saa si si sax dafa am ndox tey macha allah Allen Street set na wecc yaatu na mun ngaa dox dafa mel ni dañoo delloowaat buy bi sa mboy booy di pliat puusu ndaw si mbeeda bi kon nu ma ko dee puusu ndaw suñu jërëjëf bi du xam na bu baax li ma wax. foog koo nasi you understand comme ni ñu leen ko right now ñu ngi Allen Street Allen Street foofu lañ nekk kenn di réew Allen Street Allen Street mooy fan fan la juma awsa bi nekk. mooy diggi Banjul mooy diggi Banjul mooy xaaj Banjul si ñaar comme ni ko du waxee. foofu lañ nekk tey ñuy waxtaan ak kan muy broda suñu broda Doudou Ndiaye moom mi nga xam ne ak gis lu mu bon bon bon fekkee na dimba gis na tey ñu laajoon ko mu balance affaire si comme ni ma leen ko waxee rek. wax naa leen ko soo leen bëggee xam Covid bi nu moo demee Banjul wala ngeen bëgg a xam Covid 19 bi naka la tóoru si biir Gambia fan ngeen ko mën a amee muy Sahel Network TV mooy YouTube name bi. Facebook page bi mooy leen Sahel Entertainment Studio foofu ngeen mën a seen seen comments yi rek wax naa leen ko lu leen réer Banjul rek seetaan leen Sahel Network TV muy YouTube channel bi ngeen subscribe ñu ngi leen a ñaan ngeen subscribe du gis nañ ne Banjul macha allah léegi nu ke réeré wun ni nga ko dañ di bale Johnson kii dafa bale sa bunti kër kii bale ngeen dajaloo ngeen buub lan nga am fuy waxaat si loolu la dañ ni ko suma raka suma raka ji toj nga li nga wax ni lu important man nga gis dama bale Johnson to Johnson Waktu bu so gesto fa di nga fa ay pot yo xamne sa ci bir pax yooyu noonu maa improvise ma tek ko fa pour kuy romba ngay fa mu na sani sam balit lolou lu am solo la ci bir gambia bi lolou am solo la ci bir gambia bi dañ wara a soné ñuy job joko parce que waji ji nañu suñ dekk ku ligéy dekk bi ba at least ñun ñu jëral li ci des responsibility bi mënuñu bàyyee eh, yëpp government bi comme que ñu ngi fii nii moom kansul bi moom wax dëgg neex yàlla bi ñu dee dimbale de kansul kansul bi nekkul di ñu dimbale booba dimbale su seen mbali moto mbalit yi ñëwee tey balaa moo ñëwaat yàlla xam boobu moom dëgg la ñi nga xam ne ñoom lañ dee fay pour ñu mbale mbedda bi suñ ñëwé tay balé mbéda bi yalla xam léegi légui dañu balé sax ñu bayyi mbalit bi si konam ci tay si pégg yoon bi man suma saaj fi ni ak suma neebo ci jambar lañ torop suma néeboo si nekk fii boor tiliboor ak babor every time dañu nekk di balé sen bopa dinañ bale ñu dajalé ñu saani mun na la wa from johnson of ay fijaral ak oxford allen street be bala nga am um, fijaral allen street ñi fa nekk dee gis naa ne ñoom dañuy génn waxtu bu nekk di bale mbedda bi di meeg soo yi Adama Barrow liggéey bi ñu defal ñu jëm koo maintain ndax mu gën a mun a yaaga te ñu ngi ko suñ koo bale feebar wi day gën a daw rek waxuma la feebari Covid bi de waaye feebar bu bari am na lu dul Covid 19 bii ni nga gis ni personal hygiénique boobu noonu daf ñu war ñuy bale mbedda di bale place yi di ko defee dafa gën a ease of things waaye su fekkee ne things into our own hands and make sure that things are working through so ñaan naa leen Banjul waa Gambia ñu dee génn di bale suñ boor di make sure that ne ñuy avoid dates yi nga xamee ne moo dee nekk si kaw street si nga street a clean ñu mun baax nit ñi mun a nekk si jaama ñu mun a am wérgu yaram ku am wérgu yaram di nga am fan bu gudda ku am fan bu gudda di nga fekkee te soo fekkee lu nekk ba xëj si so wi nekk soo ne ñu def loolu noonu comme ni ma leen ko waxee soo leen xoolee suma side fii nii gis naa ne amul waxuma amul fen si biir Banjul de waaye suma side fii nii si diggante bu gaata bii nii maa ngi improvise li nga xamee ne teg fi ay pot pour ku ñëw so rombe nga muna sani sa mbalit si bir pot yooyu non foog na ne suñ defé lolu bir Banjul yépp dinañu dibalé ba paré ñu jël loi bi sometime ñu emphasize ñun ñoo fi deeka buñ nangu nit ñi ñew diñu ñu yaxal suñ dëkk bi lolu lu war la ci suñ ci suñ loxo la wara nekkal ñu meeg soo buñ nangu nit ñi ñew diñu ñu yaxal suñ dëkk bi ku romba ñu gis ne musani ñu ne da ah bro in a polite way don't be aggressive just appeal to the passion. Bro, bindi mu ngi ni de foral li ni nga dugal ko si bir bindi wala yo sa bopa nga jog nga won ko ne ko ni amul next time bu ko def nga jël ko nga for ko dugal ko fa maybe next time the passing when he's walking past du du doguma la de comme waadu comme ni rek comme ni rek ah gis nga ah dafa dafa yomba comme moy lu di wax rek gis ngeen léegi naa suma ISP pare si guddi si bi rek gis nga. nga ñëw sànni ko si bin bi. it's simple. it is very simple. Mm-hmm. so foog naa ñun ñëpp suñ taxawee si loolu dina dinañ Banjul dina gën a set. parce que loolu daf fi amoon suñ yaayee loolu lañ daan def dañoo génn suba bale mbeeda bi même set ñu dajale ko yóbbu ko si bin bi. so ñun tamit ñu jéem a dox si loolu moom laa jéem a dekkil nii si suma koñ. whereas every time rek damaa make sure garbage ji nekk si street si whatever it is dama koo bale ma dugal ko si biir place bi parce que council bi su ñëwee most of the time bàyyeel téeg bi si suñ kaw street si wasalaam jërëjëf waaw mbokk yi yéen a ko dégg mu ne lan nañ ko dooree si ñun saa yuñ lekkee wala saa yuñ naanee suñ café Touba yi rek nañ ko def rek comme ni ko gars da wee rek bu Europe bi ñoo rek trop ko si biin bi c'est simple nekku ne council bi mooy def yëpp ñun tamit dañu war a pli ñoo ka si kër yi ñu delloowaat buy bi si mbooy mbooy bi comme ni ñu ko waxee rek nañ bale ku nekk nag ngaa bale ba sa bunti kër keneen bale ñëwaat ngeen dajaloo suñu yaay yi noonu lañ ko daan defee lu mu bon bon bon fekkee nañ si tuuti fii nag mooy Allen fii lañ daan naafilayee joni joni comme ni ko gars daan waxee maa ngi nii naan taxawa suma benn sista bu baax sista nakam na yaa ngi kuul tur bi yaamu ndaw seeka yaamu ndaw dafa mel ni yaa ngi takka sa max waa nga. lu waral wa taxaw mag si. may ñëw si asalaamaaleykum My name is Yaman Seka. The pandemic is real. It is real. Prevention, prevention, prevention. It is real. may delo suma nijaay mi nga xam ne Mr Doudou Ndiaye nga ngaa laa ma diko delo delloo njukkal waxam rafet na torop man nak awma dara lu because lu ma wax wax Dega-dega-dega suma wa koñ dega dega dëgg ay jambar lañ ma ñew ci wax yi nga xamne moy max max yi mu ngi indi problème bu baaxa baaxa baaxa a baax a biir biir because ñepp nga wax ne max ni max ni max ni mënuma koo sol mënuma koo sol max kam kam mënu ko sol dañoo jappalé suñu boppa rek ga dañu nekk tamit di jappalé way max dega-dega, max kam mënu ko sol because domi adama bu nekk wa nga nokki oxygène te oxygène bobu nonu si ñun la um, jéké ba ñuy jël max di sol pour ñu génnee feebar bi nga xam ne tey moo lembi àddina si tey muy coronavirus euh, maa ñëw si suñ maa ñëw si suma mbokk jigéen yi ma di leen xamal ne ñun fu mu nekk nii affaire si suñ suñ loxo la des because ñu ñëw toog ñu ne tëj nañ school bi school amatu ñu tëj lu nekk ñu ne because pour affaire feebar bi ñu rek ñu xeex ko pour mun koo génne si suñ dëkk bi nga xam ne mooy coronavirus mi nga xam ne moo lembi àddina si tey suñ tey suñ jigéen yi tey nekkuñ di ko def de billahi nekkuñ di ko def because foo dem ni fa fekk yoo xale yi pax yi foo dem gannaaw koor foo dem xale yan ngi fa te loolu yow waru because feebar bi lu am la toog ne ñu ne feebar bi politique la dañ si dugal politique nii nii nii nii ak nii allahu akbar feebar bi tey si nekkoon tey politique gëstu leen tey jàkka yi ñu toog bañ war a tëj jàkka toog bañ war a tëj fi nga xam ne foofu lañ war a yow dundee muy marché toog mi nga xam ne ñuy war a tëj bitig yi toog ñu ñëw toog di wax ne waa feebar bi politique la feebar bi du politique de ñun doomi adamay tey soo gisee tey lii jaama pexem yalla ak dogalam yalla ko wàcce suñu bir de nañ delloo suñu xel ci si yàlla ñu bayanté suñu raxa suñu xol yi nekk ben ñu bay doomi jàmbur ñu ñoo xeex ma dinañ xamal ñu nak fagoro gën faju fagoro gën faju fagoro len bala faju alaykum wa rahmatullah yena ko ko déggandoor suma sista bi wax na toj na yah bi sista toj nga yah wax dëgg ne toj nga yah bi comme nim ko waxe mu ne fagaru mo gën faju ngir yalla ak yonente ñun sa dañ ko def fagaru mo gën faju sista bala nga dem yaamu ndaw bala ngaa dem gis nañ ne comme laal nga fee na fu important moy lan sa mbokk yi jigen ni diko man sa dama day jaaxle léegi-léegi da nga gis gay dox di dajé di dox duñ nangoo sol sen marché ko waree bu ne la ah dama si sonn lan nga am fuy wax ci ñu nga xamné sa mbokk yi jigen ni lan nga am fuy wax ci lolu ñu wa su mbokk yi nga xamné tay ji ñun ñoo amé xalé ci kër gi ñu bàyyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax um because tok nañ because ñu bari fi tay suñu diggal bi ñu ngi jël ay rab diko def suñ pet waye rab yi guddi gu rab rab ya dem exemple bobu non rek te suñu ñëwé xamul lu ñoo walé si sa bir si sa bir kër xalé ya ngee dem xalé yi ñu ngi dem di foyi ci kër jamburi te suñu ñëw do xam lu ñoo yow walé bala sa xalé bu duggé nako émal emal fofu fo joge mo ñu la fi la joge jëlal omo wala detol wala eau de nga raxas loxoom bi wem set nga do ko ci tankam bi nga ne ko ele ka sibir suma la fa gisee dina la dina la dina la dina la dina la do because su mu nekk nii tey bi tay mu ngi indi problème ci suñ biir because ya nga gis ne tay xalé ñu ngi jaayante dëgër bopp ak um, ñi nga xam ne ñooy yi nga xam ne ñoo nekk di wo si dëkk bi pour ñuy wax ne ñu tok suñ kër because max bi rek nekkul ne taxul ba doo am corona waaye ñu toog suñ suñ kër yi boppa téye suñ ndaw yi nga xam ne tey jii ñoom la yàlla mais ñoom la ñu yàlla dënka ba si yomal xiyaamati muhammadu rasulullahi wañooram mu dugal ñu bi añ biir arjana ñu toog bàyyi suñ xel bu baax a baax a baax a baax xam ne àdduna bi daal moom dara jaru ko fi service service man you have to respect service man taxaw na mu ne la bu kenn nekk si mbedda fonk ko nga rus ko nga nga nga toog sa kër ngir yàlla war a suuli because mu nekk nii toog nañ ba xam ne dëgg dëgg dëgg feebar bi dëgg la si suñ biir xale yi soo ko fee fédéral ñu ngi play football soo ko fee ñëw street ñu ngi play football foo dem xale yaa ngi play football ñu ngi jaayante ak suñ gars yi dëgër boppa te ñun ay civilians rek lañ soo nañ fexe ñu try bu baax a baax a baax dañoo jàppale suñ suñ xale yi pour buñ pour buñ dem fen ñu téye suñ suñ xale yi pour pour buñ dem fen number two ma ñëw si ñi nga xam ne ñoo amee tey bitigi tey nga defal ne ko salama alaykum a xaaf mur ak nen mu jël mur bi ci bir bitig bi ak loxom bi dok ko xar ko dafa mayonnaise ba pare jël nen bi ko ak loxom ba pare mu xol ko ak loxom te xamuloo ko su sulum jógee tey sulum joge tay ji xamul xamul ko so loolu lu jara bay xel la si suñ biir ndaw wax diga neela la nga yax bi comme niko gay de waxe suma mbokki ñi nga xamne ne ñoo dee nekk si bi ngir yalla ak yonent bi ñoo jaay nañ meeg soo ne ñuy sol glove voilà ñuy raxas suñ loxo yi all the time feebar bi kenn feebar bi lu am la feebar bi kenn du ko politiquer lan lañ mun a def puy mun a sowe suñ boppa mooy lan ñuy raxasu every time ñu sol face mask après saa yuñ toogee ñu joxe social distance loolu rek a ñoo mën a sowee lool si feebar bi nii saa yu xale yi génnee ñëw comme ni ko yaamu ndaw waxee nañ leen teg si bunti kër gi raxas seen loxo yi eau ak saabu loolu rek moo ñëw soo fekkee ne amuloo saabu ngala la ngir yàlla ak yonente bi hand sanitizer sax mu ngi nii defal nii rek kon ni ko monsieur Ndiaye waxee nii kon nii kon nii ñëpp ñu mucca ñun ñëpp ñu mucca muccal suñ doom yi muccal suñ rakay muccal suñu jarbaat yi loolu rek lañ mën a def pour mucca ci feebar bii comme ni ko gars yi waxee nañ toog suñ kër yi nañ toog suñ kër yi def self quarantine loolu rek lañ mën a muccaloo si foofu maa ngi taxaw suba beneen si sa sista na nga def tur bi gay nii naa la lan nga am fuy wax si nga xam ne feebar yi moo lëngay àdduna bi man li ma si am li ma si bugg a wax fasting mooy dry fasting moom laa si bugg a wax because of am na ñu nga xam ne ba léegi ñu ngi dëgër bopp dañoo dugg si biir moto duñ nangoo sol max bi driver yi nag ñoom tamit ñu ngay traay def seen liggéey nag déema rek maa ngay dem kombo maa ngi dugg si biir moto bi ñëpp a ngi def max bro bi toog si kanam nanguwut a def max driver bi ne ko ne solal max faale wu ko solal max wu ko ñu dem ba egga boori Gambie xaay ñu ne ko ne solal max mu ne sol max driver bi ne ko kon wàccal suma moto bi ko sof feebar bi fi mu nekk nii ñu ngi wax ñëpp nañ sol max soo sol max rek wàccal suma moto bi soo ñun passenger si nekka si mu ne hey bàyyi leen ma waaye damaa lekka ñu ne ko ne even lekka bi nga xam ne sax dañ ko aye si public public pour nu ñu def ko because of feebar bii nii Europe da war a sol max nga bàyyi lekka bi ba nga dem si kil bi nga doog a lekka ndekete waa ji dafa so borom uniforme la biñ demee bee si bunti soldaar yi foofu mu waaca ma dégg paa bi ne ko ne ah, kon yow lii nga doon jaay moo tax nga bañ a sol lifin bi maks bi waaye fi mu nekk nii amul uni kuy sol uniforme amul ku dul sol uniforme ñi ko war a obéir ruur si di sol max bi because of feebar bi dafa ëppal loxo fi mu nekk nii mu ngi gën a garaaw mu mu ngi rey suñ nit ñi especially mag yi fi mu nekk nii ñoom la nekk di gën a rey yaa ngi fi mu nekk nii ñun yaay yi dañ war a teraay ak papa yi yëpp ñun yaay yi nga xam ne nag ñoo de gën a toog si kër gi papa yaa ngi xëy di dem di liggéey nañ teraay ñu jël suñ doomi taag leen si kër bi monitor leen football bi ñu jëndal leen ñuy football si biir kër bi di tray di waxtaan ak ñoom kom kuy wax ak sa moroom su ko defee ñoom dinañ mën a toog si kër bi mën a rek xale xale rek la xamul dara soo waxuta moom du mun a understand du mun a xam naka la waaye soo xëyee suba jokkondeewoo bàyyi ko mu dem du nangoo toog dafaa def lu ko nee moom du xamut ne lii dëgg la wala lii dafaa def nii lii def nii yow yaa ko put si moom pour mu am understanding boobu noonu soo feebar dafa garaaw garaaw bu nga xam ne mu ñoo rey fi dañ war tataay rek ñu ubeer wur si lu metti yaagu te lii sax méttiwut bi ko sof lu ñoo aar di ñu dimbale kon loolu méttiwut nee naa def sol max tataay em suñ kër yi soo mun waree dem marché pour dem duga nga dem duga ñëw tooga em sa kër waaw moo gën daal di génn di dem fu nekka soo déggee xew ne xarama daw dem xale yi di dem di football ji su ñoo ñëw doo dee xam lan la ñoo andiwaale insta sa yenn saa dañoo ñëw sa doo wax ne xale bi ne demal nga dem raxasu ji nañ tëraay daal ñu méeg soo daal ñur ëbee si traa dimbale suñ doomi ñun ñoo mëna a dimbale suñ boppa fi mu ni ñun ñoo wah a dimbale suñ doh bu baaxa baaxa baaxa baax ko digando mu ne ñun lan ñoo mëna a suñ yi si biir waxam wax na li lan li max bi Bayan Force la si biir Gambia soko solo dinañ la ciat tay ku deglu president Adama boro si biir speech mu ngi wax ni mboolem rules ci nga xam ko tek setin ci kenn suñ na téye daal liñ la war a daan dinañ la ko daan si biir waxam wax na loolu noonu comme ngala ngir yàlla ak yonente bi ñu ngi leen a ñaan muy lan civilian security officers ñëpp dañu war a bokk si fight bi ñu fight lan li nga xam ne mooy covid 19 ñee nii di ko wax lan muy coronavirus suñ booloo nekk benn feebar bi dinañ ko daan amul dara luñ mën a daan mooy lan amul dara lu dul jeex mooy lan muy nguuru yàlla rek a dul jeex waaye feebar bi mun nañ koo xeex si lan foog ñu bokka booloo xol yi boolee loxo yi mu doon benn ñu mun a xeex feebar bi naka lañ ko mun a xeexee mooy lan number one foog ñu toog suñ kër yi number two foog ñuy sol suñ face mask number three ñuy raxas suñ loxo yi every time number four mooy lan foog ñuy def social distance number five mooy lan foog ñu bàyyi public gathering si loolu rek moo ñoo mën a sowelloo li nga xam ne mooy Covid 19 bii nii. kon ni ma leen ko waxee rek ñu ngi nii ba léegi ñu ngi Allen Street foofu noonu lañ nekka tey Covid 19 is real su nekkoon ne ne amut ndi kon duñ tëj jàkk jàkkayee coo ji jullit yaa ngi nii mënuñoo dem aji Màkka kon ngeen xam ne feebar bi is real te dem Màkka dafa bokk si five pillars of Islam si kaw lan soo ko mu ni comme ngelax ngir yàlla ak bi ñu ngi leen a ñaan ñu ngi leen a ñaan ngir yàlla sol leen seen face mask yi raxas seen loxo yi every time ñuy moytu ñuy def social distance ba pare ñuy moytu gathering bu bari comme niñ ko waxee rules yi mooy loolu curfew dafa am Gambia sista lan nga am fuy wax ci curfew bi nga xam ne waaw su ngoon nit ki li nga toppatoo su jeexut kon li nga toppatoo du mus a jeex bay reer suñ ne te nekkul nañ dugal suñ biir kër yi ñu toog fa war nañ faa dugal ñu toog fa ñu évaluer si ñun lañ nekk di dimbale dañ war a xam ne ñun lañ nekk di dimbale pour suñ boppa la ak suñ njaboot yi pour suñ ti soo dañ war a évaluer si ñu def ko waaye suñ diggantee boppa du baax du baax konte ñu ñuy dee dafa bari ko of feebar bii nii garaaw na garaaw bu nga xam ne su ma duggee pour nga meeg ko daf dee difficult yaa ngi dégg soo kon dañ war a maintain obéir rules si nga xam ne dañu ko nekk di ko wax ñu try di tëdd on time waaw waaye fi mu nekk nii alhamdulilah su nekkee ne tamit am na ñu nga xam ne du ñooy tëdd tëdd it bariwut nit ñaa ngi obéir rules si bu baax a baax because of late hours doo dégg dara si dëkk bi dëkk bi yëpp a ngi seeda alhamdulilah dina ko déggandoor yow mu ndaw lan nga am puy wax Alice Street mu meloon time bu ak léegi naka nga ko see Alice sa koñ macha allah macha allah macha allah faal bu yàlla faal xamuñu si dara waaw mënuwuñu yi nag waxi nag bari nañ te su ma nijaay mu ngi def li nga xam ne ki nga xam ne mooy alxaaji Duudu du Njaay mu ngi def li nga xam ne mooy di best because liñ wax ma jëlaat waxaar waxaat ko jël na ay siyo teg ko si pax yi nga xam ne mooy dig-digal yi nii pour ku lekk soo rombee nga sànni ko fa pare taale bi fi nii macha allah macha allah moto nga doon nu ko neexee ñun suñ boppa ñun suñ boppa ñun ñu ngey fil ne dëgg gis nañ change suñ suñ koñ bi nga xam ne mooy da Street pare suñ koñ bi nga xam suma nijaay mu ngi góorgóorlu bu baax pour taxaw ku romba mu ne en sa face mak ni ni ak ni mu wax ak yow suñ jek ak ak taranga pour face mak si ñu mën ko use ñu mën ko sol mi nga xam ne moño jappalé président baron nak ma diko ñaanal ma diko ñaanal because ma diko waxat fal bu yalla fal te mënu ko foyé ci mukk xanaa waxtoom jodde yalla tek ko ci tek ko ci ci suuf way amu fen ñu ma diko ñaanal nak place am mu nekk ni yàlla na fi yag jall na fi yag lim bu ga mom moko xam ci xolam yalla nako ko yalla defaral mënu mënu mënu wax dal mënu ma wax dara dara ci mom because lim def mo re be pare lim def mo rafet waaw deug deug ben rek la dang ko wax rek mu jeex waye deug ben rek la yàlla mu ne um moytul ma nafiha li nga xamne moy seytane gis diga ba pare bagn ko wax moy lan ayatul munafiquna salasatu iza khadasa kazaba wa iza waada akhlafa wa iza ukhtu min al alxaana al bukhari wa muslim dañ wara bass ñu xel ñu moytu moy ñu waat ñu raxas suñu xol yi nekk ben ñu téewante li nga xamne yalla ko def suñ bi ak ki nga xamne yalla ko jox pour ñu teeko ñu teeko ko suñu ñaari fukki loxo ay waxtam su jotee rek du fi jël minute ki nga xamne moñu gën ci mbindeef muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam bim paré pour pour gën yow yow aduna yalla may ko minit si nga xamne mom moñu gën dañu ci mindeef kon ñun luñu wara xaar kon ñun luñu wara def kon tok ba wara tej ay cioj tok ba wara tej ay juma kon nga xamne jaama neeku fi de nañ bayante ñu soppante buggante dina ko diggandoor xolam fess na lolu tax mu nopi te wax na bu am solo aaya bu am solo la wax lim fi wax niñ ko déggee xel te bañ koo dégloo xol yaa mun ndaw maa ngi laa jaajëfal si aaya boobu noonu foog mu mun ko because kiram maa ngi mun a remember dañ fa daan jàngee daara mun naa xam loolu du jaay du ma du ma bàyyi ma fen ñu ñëwaat rek si du du tey gis nañ ni Allen Street macha allah nu mel yow yaa ngi béy waar defar nga pani ini, nii ndax paan yi yow da nga ko defal pour make popularité oo ndax pour make lu tax nga defal paan yi nii maa ni wax dëgg wel tey mooy tey rek ba defal defuma pour popularité suma boppa ko defal because so jagaree réew mi sa boppa nga ko defal waaw soo jagaree mi sa nga ko jagara waaye maa ngi dellu si waat si yoon yi nga defaral parce que soo gisee ma sacrifice pour dem yoon yi ñu ñu yoon yi meloon su meloon noonu duñ fi mun a am paan yi parce que amuloo foo def paas parce que yoon yi mel na melo gaan boo xam ne amuloo benn njëriñ pour mun koo mun a liggéey dañ ko liggéey moo tax ñu mun koo mën a tapatoo mu mel nii waaye maa ngi gërëm tamit gay construction xaadim gay bi nga xamee ne moom soo xoolee yoon bi ku xam yoon bi parce que tukki naa tuuti gis naa yeneen àddina yi xam naa ne fu xaluñu jox nañ ko contrat pour mu liggéeyal ñu Banjul liggéeyal na ko liggéey bu sell sax Hadim foo mun a nekk rek maa naa wax ne la thank you very much for what you've done for Banjulians we will never forget you because of liñ la jox pour nga liggéey ko liggéey nga ko soo xoolee yoon bi rek yow xaw ma la nag xamuloo ma waaw xamuloo ma xaw ma la waaye xam naa ne sa construction bi jaar na yoon te yaa ngi liggéey liggéey ju baax dama la dee gis rek léegi-léegi yaa ci sa biir moto bu weex yaa ngi romb maa ngi toog suma bunti kër man tatin Allen Street laa dëkka waaye xam naa ne yaa ngi liggéey liggéey ju baax te liggéey ju baax yi ngaa liggéey yal na ko yàlla fay parce que su fekkoon ne am na ñu bari ñoo xam ne suñu ko joxoon tey xëj na ñu defal ñoo xam ne loolu yàgg na fii nii waaye bugga Gambia bugga sa réew bugga sa boppa moo tax nga defal ñu liggéey ju rafet jii nii kon thank you very much Mr Guy yaa sa construction be sa nit ñi ngaa liggéeyal yëpp yéen yëpp jërëjëf ay jàmbaar ngeen amu leen morom thank you very much wasalaam. comme non len ko waxe comme niñ ko waxe rek mom niñ ko waxe non lañ ko defé wa dëgg ne yalla hadim gay ñu la jëfal ci liggéey bi nga xamné mom ngay def bir Banjul du ñu ñëwaat du ñàkk a gis nga ko ci social media bi amuna time bo xamné bëggoon na ñu ne Banjul dafa flotte liggéey yi baaxut lan nga am pour réponse ci loolu ase Banjul ci jëro Banjul yaroo Banjul xam Banjul démba ak tay lan nga am pour wax si loolu nga xam ne ñu ne liggéey bi baaxut amoon stan yow du ñàkk a gis nga ko si social media si nga wax ni dëgg gis naa ko ku nekk xam nga well this is who we are why I am still appealing and owing to the Gambians ne let us stop trying to make the devil out of the good people because suñ ruiné suñ good people bi yëpp duñ am fuñ jàppande ko waat Hadim is doing a good job li moo def fii nii ku nekk gis na ko loolu na du ñaaka di nga am ñoo xam ne fu mu jaare dinañ toog ni saboté di wax ne ni a nii a nii ñeneen bi dañoo dugal benn tey loolu liggéey liggéey ñu jéem a isi yëfe politique te no matter how good you are they will try to make the devil out of you waaye loolu tamit suñ ko defee si nit ñu baax yi yëpp suñ jeexee ah suñ maas gi nga xam ne ñu ñoo fi des dañ mën a yóbbu réew mi kanam de soo suñ nit ñu baax yi ñu jëm leen a bàyyi fii nii ñu jéem a seet naka lañ ñoo dimbalee Hadim is doing a good job. There is nothing wrong with this job in Banjul. For romba alhamdulillah rabbi alamin. Allen Street lum rafet rafet lum baax baax am na ko ñoo xam ne soo fa àggee rek Allen Street right now soo fa àggee rek mu ngi liggéey liggéey yoo xam ne places like ñoom Dobson fële na places like ah, ah, amba ami Ken Street mm-hmm. ah nga dugga koñi MC Cham nakal waat ay ay ay Hopkinson mm-hmm. So agé si koñ yoy nonu rek nga gis liggéey standard job fantastic job la waji di liggéey ndox ya ngee daw ndox ya ngee daw fu nek su tawé ben may ko two three minutes rek do gisati ben ndox ndox mi yeb dem na be paraw li ci gëna amazing sa su tawé sa dafa raxasaale place bi dem set wecc place bi rafet wajang jaa def liggéey ju baax xaadim la wax nak nit ñi dinañ la saboter nak parce que yow so bopa do yalla do yonenté bi lu baax lo mëna def rek ak lu mu baax baax di nga am ñoo xam ne dinañ ne defuloo lu baax waaye lu baax li ngaa def yàlla gis na ko yónent bi gis na ko nit ñu baax ñaa ngi gis ñi nga xamee ne ne politique moo ngeen di wax bro gis the devil is Jew. the man is doing a good job he has been given a good contract te defal nañu li nga xamee ne loolu lañ bëgg gis Hadim Gay mu ñu koo liggéeyal I'm talking on behalf of you I don't know you waaye li nga def moo eh, eh, inspire maa ngi koo gis te baax na wasalaam jërëjëf keep it up you are a good man and a good wax na yëpp mag bi toj na yax mi ma delluwaat ci suma sista bi sis naka nga gisee tey Alioune Siré koñ gi macha allah ak nu meloon démb ak tey naka nga ko gisee koñ gi rafet xanaa baax ana bara ku ko ku ñaanal ko sant yàlla war na ko wax dara lu nga xam ne daf koy war a dégg muy nekk lu ñaaw suñ président bu nga xam ne dafa try dafa try pour Banjul bu baax a baax a baax a baax a baax a baax dafa ciiñ daf ko liggéey Tabakoro soo fa dugaat danga dee wax déedéet Allen Street man dama koy jëlale moom ngeen ma laaj waaye dama koy jëlale rafet na macha allah nit ñaa ngi mën a toog si mbedd bi time boobu noonu dangaa toog si mbedd bi one minute nga jóg bi ko soog dangaa bëgg a dee ak yooyu yaa maak waaye fi mu nekk nii alhamdulilah tal bi baa ngi rafet yoon bangi rafet nit ñaa mëna tok nga romba nees ni time boobu mun ngaa romba sax nga dugg ci pax bi nga romba dugg ci pax yi so gisut bu baax several times suñu nii suma jëkkat ni dafa daanu mulai mista ndjay Ndiaye mu laa ekkati di la dimbale pour nga jox way fi mu ni ma sha allah mu ngi correct do dox be dugg ci pax wala nga daanu tabakuru mu ko taxi bo taxawal ne ko tabakuru mu ne la demoo tabakuru way fi nekk taxi bo dafa dee yàkkamtee wax wa because of tali ba yon bu ba Tabacorot mo gino nak yaaxu ci Banjul waaye fim mu nekk nii soo duggee Tabacorot macha allah amul nu mu baaxeewut amul nu mu baaxeewut Mr Gaye kañ na place diga diga digga bu rafet liggéey bu ba may ñew nak ci duru nak nek lu nek nak suma jëkkër la dama ko wala dama ko jay li ñoo wax si olof dafa yaga di liggéey Allen Street fi ni daf dan tek saku fajar di bouf souvi diko di buuf suuf bi di ko sol pour mu tëy suñoo romba pondo bi bu mu jóg bu mu distop bi ko sol pondo boobu noonu ngay doguma la doguma la yàlla bu la yàlla dog man witness naa loolu nit ki booy waxee waxal te yàlla tax roba naa fi ay ngoon moom du ma bàyyi ma fen jeex na dafa teg ay saako pale ko dajale ko ba pare moo booy si dina mobilise booy mhm. loolu boo ko waxee mhm. man dinaa ko dëgëral mhm. ma bàyyi la nga continuer waat foofu noonu Adama Barrow ñu ngi koo ñaanal Adama Barrow nañ xam ne yàlla moo ñu moo ñu ko tànnal yàlla moo ko fi taaj yàlla moo ko fal Adama Barrow jàmbaar la te Gambien yi nañ xam ne Adama Barrow dafa ñu firi si kaso si kaso lañ nekkoon kenn du daan ñemee wax kenn du daan ñeme nga ñëpp a ragaloon amul mag amul ndaw sooy wax sax dangaa yootal te doo ñemee wax sax si mbéy sa biir nekk xëy na foofu ngay toll ngay wax waaye Adama Barrow def na ba nga xam ne fi mu nekk nii ku nga xam ne rek sa right danga ko war a wax rek danga koo wax danga koo génnee si sa xol bi wax li nga bugg a wax kon sant yàlla la soo amee démocratie si dëkk sant yàlla la te amuñ ko woon dëkk yëpp amoon nañ ko même des Gambia te right now ñu ngi ko am ngir Adama Barrow kon nañ war a sant yàlla xam ne Adama Barrow taal wu yàlla taal yàlla moo ko fi taaj nañ ko jàppale mu gën a toog Gambia Gambia mun a dem kanam mu mun a gën a rafet bi nga xam ne ñi nga xam ne ñu ngi Europe duñ bugatee toog Europe dañoo ñëw Gambia instead di fi liggéey su ko defee ñun ñu mun a am suñ nit ñi waaye fi mu nekk nii suñ nit ñi dañoo dem outside bi pour di fa liggéey lakkakat yi ñooy jógee outside ñëw di liggéey Gambia ñun dañu war a traité fi mu nekk nii suñ nit ñi ñu ñoo ñëwee fii nii ñun ñu liggéey si suñ dëkka moo gën laakakat yi di duggee seen dëkka ñu ñëw di fi liggéey fi mu nekk nii foo foore ne yaa fi ëppa moo doon poli ñooy sampa magasin yi soo demee si marché yi ñoom nga faa fekka ñooy wër jën puus puus kat yi fële borom bitig yi ñoo jaay ñun suñ yu sew yi ñun jigéen ñi dañoo fees teb suba ngoon doo xam lu ñoo jaay soo income dëkk bi yëpp mu ngi nekk si seen loxo soo ñun Gambien ni dañu war a xeex loolu noonu ñu ñu liggéey suñu réew ñun ñoo war a fi mu nekk nii trais ñu nga xam ne taka suñu digga ba mu dëgër jàppale Adama Barrow ndax ñun tamit ñu mun a dem kanam ba nga xam ne ñu nekk Europe duñu waxate Europe Europe Europe Europe dañoo toog Gambie ñu liggéey jërëjëf. dina ko dégg mu ne ñu defar dëkk bi ñu jàppale président bi mun a liggéey dëkk bi nga xam ne su boobaa sax duñ mën a ñëw Europe waaye sista dafa am fenn foo laal mooy lan ñu dimbale fori na si ñu ngi ñëw di jël liñ am. diko yobu lolu degal way fogulone tay nguur gi warno meuna liggey li nga xamne ne at least def fi lo xamne ben ndaw du toga dañ do ne ndaw yi ah, bëgguñ liggéey way mo dama dee bañ ndaw yi bëgg lan nga ah, am buy wax ci lolu non nga xamne lolu tam ñing ko ñaan gaay bu baaxa ba ñu jàppale ñu ci tay rek ma ngi demal si daral bi dafa am luma fa jëndoon jënde wo ma ngi gis bi ñoo bil non, ma ngi naan suma xel ne ah fi de bil bi mom rafet na torop ah way su paré yàlla nekk liggéeykaay bu nga xam ne dañoo jël ndaw yi nga xam ne ñu ngi toog benn place jànga ba wàcca ñoo am liggéey bu correct ñu def leen fa maa ngi koo ñaan si suma xol ak suma xel kon nañ ñu jàppale bu baax a baax ñu ngi leen ko ñaan ñu jàppale ñu ñun ndaw yi ba nga xam ne dinañ mun a liggéey toog bi mu wàññeeku campé bi mun a wàññeeku waaw. jërëjëf jërëjëf si bi wax nga yëpp du lan nga am pour wax si loolu noonu. tey dama am pour wax si loolu dinaa si contribute a lot because of I understand I have witnessed it I was there that ne the president has already launched youth development in Gambia. It is because of this pandemic moo ñu the tuuti Covid 19 bii nii there are already body boo hamne ne mu you hamne State House molen leen génnee new world Gambia bi new waxtaan and youth the youth Gambia bi. ñu ñëw agenda seen naka la leen a dimbalee ba pare there are lot of yoo xam ne mu ngi ko paree throughout si biir dëkk bi développement moom incha allah rabi am na ba pare ñu ñaan yàlla feebar bii nii yàlla safaral ko mu génn fi lii du lu ma dégga de si lu ma bokka la man suma boppa man suma boppa dama bokka si développement boobu noonu si youth développement boobu noonu dama si booka am am naa si loxo soo xam naa ne lu am la te su lu bañ a yaaga su feebar bi saafara ak jaama rek Gambien bi si boppam dinañ surprise because of waa ji liggéey la ñu war pour defar Gambia bi youth si incha allah di ngeen nekk si dara développement dina am liggéey dina am dinañ make sure ne dinañ build ay institutions make sure ne dinañ build ay yeneen a yeneen yoo xam ne xale yi dinañ fa jàngee métier ñi war a dem school dem school. ñi war a liggéey dinañ liggéey ñi nga xamee ne war nañ na support si school ñu support leen because of loxo yi emuñ doole yi emuñ yooyu noonu yëpp waa ji développement yooyu noonu yëpp teg na ko in place already everything is in there li ñoo xaar rek pour ñu implement ko implement bi li ko diile rek mooy feebar bii ni soo moo tax feebar bii nii si moom la ñoo jéem a try nu ñoo jéem a trayee ñu saafaral ko si dum gën a gaawee saafaral ko nag mooy li ñoo wax ni ñu aar suñ boppa aar suñ mooy covas yi raxas loxo yi make sure ne social distance bi you go out when it is necessary abide by with the rules and regulations coffee rules yi ñu jéem koo maintain su ko defee feebar bi du gën a mun a am doole pour mun a spread suñ biir wasalaam jërëjëf bi mbokk yi yéen a ko dégg feebar bi lan moo ñu see mun a génne foog ñuy sol face mask di raxas suñ loxo yi kon ni ko defee nii rek ñu gis ngeen ñu ngi def social distance loolu rek moo ñu see mun a génne yaa mu ndaw tey lan nga am puy wax si affaire yi développement lan nga am puy yóbba teen góor gi yow mi nga xam ndaw nga danga dee liggéey si salon man gis naa la several times si salon lan nga am puy wax autorité si wala ban message nga am puy wax nga xam ne mooy président bi lan la mën a ndaw yi Banjul not Banjul rek bot ndaw yi Gambia in général lan nga am puy wax si loolu waaw ma ñëw pour xamal leen um, Um, maa ngi dégaloo suma sista bi di wax nii léegi nii affaire yi ñu jàppale pour ñu jàppale yuut si pour ñu mun a am liggéey si biir gambia bii bi maa gën a nekkallu ndaw bi maa dem school fajakunda ba umul couran suma kella ranjo ji dem school dama daan faral di bokkaa boo yi moto ñuy wax bay saaga ne ah gambia kay moom amul job amul nii amul nii gambia liggéey mu fi de liggéey mu fi dañ ko xamul rek waaye liggéey mu fi moom suma boppa dama toog ma xalaat loolu mu ne fruit sii di rot nii mangoro yi di rot ni nii sorance yi nga dem ni ñuy rot ni banana yi nga gis ñu yaaxu di lifi ni mun nañ ko ibil seen factory bok ñu diko defar diko jaay ñu diko defar juice ñu ñu diko jaay because loolu yépp liggéey la loolu yépp yo yo yo xel la loolu tey jii tey man la wax de su ma yàlla ma yoon alal alal bi tay ma jël ko ma samp ko ma tek ko fi nga xamantene moy suñ yow dëkka because amna naa droit bi pour ma def ko suñ dëkka loolu ni nga gis ne euh, youtube bari yi nga xamne tok nañ for how many years amul liggéey loolu rek mun naa tax ñu so ñu um, ñu sauver si liggéey boobu noonu am fa li nga xamante um, ne um, comme duñ ko góomee because ku toog tey ñu ne la xay mango bii nii sa soo ko jëlee nii sa nga defa ko juus nii sax xay am lu bari la because su la mënee saaga ndey daf laa saaga loolu tamit bu baax la loolu loolu tam mën na yoo xalaat because li nga xamante ne mooy fruit bi suñ ko iboon tey compagnie tey bu mag ñu teg ko si dëkk bi ñu di ko defaree juus mi nga xamante ne moom la nit ñi dee naan loolu rek suñ ko jëlee rek ñooñu defal ko rek nit ñi dañ am liggéey boo xamante ne nañ mën a góorgóorlu si loolu noonu because loolu yëpp liggéey la si yow yow suñ biir waaye ñu ngi ko gis ñu ngi ñu ngi toog ñu ngi téye ñu ngi téye suñ loxo yi bañ a def um, dara li su ma liggéey wax nag mooy lañ bi nga xam ne foofu noonu la um, demoon pour nu ñoo soowaatee pour suñu yuur yuur si bañ a toog liggéey mën a jàppale seen waajur yi seen ñaa seen waaye jur yi nga xam ne ñoom lañ bàyyi si si um, si kër yi loolu noonu fii la ma fekk bi ma bi ma wax nii ne um, maa ngi dem lunch waaye léegi tey ma ñëw because dañ war a toog ak suñ président bi ñu mitin li nga xamante ne mooy affaire yu si yuut si sona nañ trop trop trop waaye foo dem daal moom ni nga dégg wax wax boo xamante ne si jëma ñuy yuut si mooy lan Gambie amul dara dañ commencé ba wax sax ba di si la moo tax um, foreigner yi nekk si biti di ñëw fii di fi di fi di fi ñafee di di uti di uti liggéey parce que nañ ne Gambia dafa am dara Gambia am na am na dara de Gambia am na dara damaa toog fii léegi nii di campé te ay sénégalais laa lay toogal di campé mais ne yéen a ngi ni fees fi teb di lan di ñafe because mu ne yow ñafe seen dëkk because li nga bugga doo ko am waaye fu nekk nii suñ suñ dëkk bi fii fii nii xaafe yi fi ibbi store yëpp ñëpp laa mën a wax sax du xaaf sax ñëpp ay foreigners lañ kenn du si Gambia mosuloo toog ba dégg doomi Gambia moo ibbi building bi amu fen waaw ma di leen ñaan ngir yàlla wa rasulillahi nga xamante ne moom laa indi pour muy suma xalaat fruit si nga xam ne suñ ko jëlee tamit ñu ibbi factory ñu di ko ñu comme ñu di comme ñu di ko liggéey pour juusi loolu tamit ñu mën a jàppale bu baax a baax a baax wasalaam mbokk ko dégga mu ne fruit si man sax dama day yàgga di wax loolu mango yi nga xam ne daf dee rot ñu ngi koo for yamoon a staan ñëpp di ko jël di ko yóbbu yamoon a staan di ko yóbbu di ko génne si dëkk bi ngala ngir yàlla yonente bi na si nguur gi jéem a jël matuwaay ñu mun koo defar fii nii suñ ko mënee jaay fii jaay ko fii suñ ko mënee génnee bitim réew yóbbu ko foofu di ko fa jaay sax dinañu gënal ñu ibbi si ibbi ay compagnie loolu rek si biir waxam Yamouda dafa mel ni loolu la moo wax Mr Ndiaye si gàttal lan nga am suy wax li nga xam ne développement bi nga xam ne moom lañ bëgg a si biir réew mi wala di li nga xam ne loolu lañ war a jàppale youth si Gambie not youth si Banjul yëpp but youth si Gambie in general lan nga am pour wax youth si Gambie ne ne there are lot of projects yoo xam ne they are coming on as I I mean, I mean, lament before, we, it is because of the COVID-19 that is actually slowing things down. But in reality, man, my, man, in passing, I am part of that development. Because of development bobu no si ñiko de I mean si I mean si ñiko wara tahawal si biir dëkk si la So the problem bi rek moy COVID bi. There are a lot of projects yoo hamne the president has already launched daf ko bañ ba nga ne am nit ñoo last time we are having meetings am am meeting Bir Banjul fii nii am youth yoo xam we supposed to go right round the country from Koina to Katong we already held meeting in Banjul both Banjul North Central and South pertaining to this youth development so we are on it at the moment right now lii ko diile rek this pandemic COVID-19 but immediately after the COVID-19 everything will be implemented dina ñëw inshallah allah because of it is already there président bi loolu xalaat na ko bu yaaga ba nga pipeline bi mu ngi on am na nit ñoo xam ne loolu rek mooy seen liggéey si biir dëkk bi and it's for the only youth ba pare suñ ne youth it is not only maybe from 18 to 29 because of youths in Gambia dafa started from 18 to 45 years not all youths know have the same problems because of youth man some of them are parents most of them even are parents dafa am ñoo xam ne dañ then war a I am na ñoo xam i dañ am pour seet naka la ñoo jéem a sustainer the basics necessities yi nga xam ne mooy suñu living the cost of living si si biir Gambia sarali coob at everything yep, si la so yii nii yëpp dafa gaada xam nga big thing la do yëfi hale yu ndaw because su ne youth bi dafa am fu mu commencé youths are divided into categories We got the teenager we nga am adult bi and middle age class bi loolu yëpp youth la ne ku ne youth be mooy onne ki hamene xamee he is 18 to 29 years old or a teenager from 12 years to 18 years no youth be it is divided into categories, and these categories are divided into three. So we will make sure we will give a helping hand to all these youths in Ahamene, ñoo nekk Sibir Gambia bi ku rek li war make sure dinañ la dimbale si fànn boobu thank you very much. mbokk yi yéen du wax muy fan Street Street di muy du la ñoo waxtaane mooy lan affaire yi feebar bi muy ban feebar coronavirus ñeneen ñi di ko Covid 19 ñeneen ñi di ko ooyee mbas mi loolu la ñoo waxtaanee tey fii si biir Banjul ak naka la curfew bi dee demee naka la ko waa Banjul jëlee du rek ñu delluwaat si li nga xam ne moom la tey président Adama Barrow joxe speak nit ñi ñu ngi wax ne président dafa war a wax si feebar bi man ma ne président bi yàgg naa wax si feebar bi. lan lan nga amaat kuy wax li nga xam ne suñ mbokk yi nga xam ne ñoo ñoo seetaan yan mesures lañ war a jël li nga xam ne mooy feebar bi muy lëmbee dëkk bi lëmbee àdduna bi lan nga am kuy wax si loolu. président Adama Barrow añ leen ko bàyyee boor xanaa ñi dul déglu moo tax ma ne Gambian bi dafa am leen rek mu ñu mu ñu gëteen ignorance am sorry to use this language ignorance is not a crime mooy loo xamut waaye ñaaka xam bi ñu ñoo ko teg suñu boppa because of we don't listen to news we don't We sit on the street and speculate, listen to Radio Kankang. It doesn't help. Adama Barrow has been talking long time. Bamo wax fekk na feebar bi dugul biir Gambia. mu ne ñu use suñ précaution si fekk mu nga yeneen dëkka mu ngi rey out of the Gambia worldwide waaye nit ñi faale wuñ ko why waxee you see dugal politics this is no politics we don't have we don't have time for politics at the moment this is for real our lives is in the stake soo ñu jéem a méeg soo ñu xam nga jël weeloo dëgg bi suma ma jarbaar wax na ko fii ki ñaan baaxut dañooy doxal li nga xamee ne moom mooy dëgg dëgg bi dëgg la waa ji ba moo wax lii nii ñëpp a ngi dem seen loxo faale wuñ ko ñu ngi essayé politique waa dafa uti xaalis waa dafa def nii ana xaalis boobu noonu su ñëwee si poosam la moo dem xaalis boobu noonu ñuy wax noonu si àddina yëpp la dem pour ñu support suñu boppa pour feebar bii nii da tey moo tax ñu jël ko faa xaalis boobu noonu jógee wul si ko posi suñ poche la jógee is from the WHO WHO boobu noonu àddina bi yëpp ñun ñëpp dañ dee contribute si on United Nations UN xaalis mooy delluwaat si ñun rek suñ xaalis la buy delluwaat si ñun pour mu ngëriñ ñu tey so loolu noonu yàgg na fi bi waa di wax ne ñu aar suñ boppa nangu ñëw suñ aar suñ boppa tey fu mu nekk nii dem nañ up to 1900 people are infected with this coronavirus suñ ko fanxalu woon bu yàgga ni ko noonu xëj na du aaga foofu noonu soo baroo ñu génnee ko si lii ñu bileem suñ boppa te lu ñu war a def fu mu nekk nii mooy ne ñu jàppalante comme nu ko waxee ñu ababa with the rules and regulations we put on our face mask wash your hand regularly make a social distance don't shake hand to nobody make sure that so you go out when it is necessary when it is not necessary stay home because you got nothing to sort out from morning, early morning to 10 o'clock, you got nothing to do. Linga waruta, linga munta sort out from 8 o'clock, 10 o'clock, muna to loko sort out. So make sure ne, ngen stay home. Coffee mungi ni di jot right now. From neka ni is 21 plus. Legi te 10 o'clock jot. jot en na nyeb dugga sen bir keri yi ngeen tok. Du fe défé fébar bi tel muna joke, si kata ni Yalla si parke di jaay wara suru yi. Waye suñ dégéré ah dinañu gësën de waaye foog naa ni Gambien yi a waaye wise léegi fu nekk nii pour nax ñu dina jafe lool. parce que ñu maa gis fu mu nekk nii ñi dëgër boppa benn benn la te ñu ngi déglu fu mu nii dinañ xam ne lii digg parce que boor bu seg na toog ñi taagee la nit di nga xam ne lii caaxaan jeexaan na si wasalaam jërëjëf. yéen a ko dégg feebar bi lu am la. lan moo ñu mën a sowee loore comme ni ko waxee comme ni ko dabul xëccoo tëralee luwaay yi nga xam ne moom la WHO teral mooy lan foog ñi sol suñ max ñu raxas suñ loxo yi ñu def social distance ñu bàyyi gathering bu bari bi ba pare ni ko gars yi lan self quarantine nañ def quarantine si suñ boppa pi fàttali waat leen rek fàttali suma mbokk yi ñu ngi leen a wax ne yéen a ngi seetaan Sahel Network bi mooy YouTube channel bi Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a seetaan foofu ngeen mën a sene seen comments yi comme ni ma leen ko waxee rek wax naa leen ko loo xam ne bu nga koo xam si curfew bi naka la moo demee bi Banjul wala feebar bi naka la ko wax Banjul jëlee seetaan leen li nga xam ne mooy Sahel Network TV mooy YouTube channel bi ñu ngi leen a ñaan rek ngeen subscribe fii nii rek ngeen mën a amee wala loo koo xam ne nama nga Banjul rek seetaanal Sahel Network TV du ñu ñëwaat rek li nga xam ne mooy Banjul yàgg nañoo jooy affaire yi stores yi bokk nga si ñu nga xam ne ñoo ko waxee lan nga am pour wax si yëfi stores yi nga xam ne mu ngi nekk si nga seen residential area lan nga am si wax si loolu ñu ñàkk a benn mu ngi nii si sa boor. Eh, no stores to Banjul. no stores to Banjul we need Banjul to be residential area man am part of the executive si nekk biir Banjul fii si no stores to to Banjul si dafa contribuer rek si suñ wér-gu-yaram. parce que trop yi dugga si suñ biir ka bi ni sto yu mag yi dimbalé wuñu dé waye dafa am ni ñoo xamné ñu ngi ronu ci sun ron ñooñu nak dé are no good citizens because of su né yow citizen bu baax nga nga gis li nga xamé ni dafa lore si biir dëkka dina joxé fébar fébar bu du jeex la mo joxé noise bi rek fébar la pollution bi ñëw kenn waxuko ñu encourage lulu because of the little money ñi ñooñu di jël di len bribe al maa ma fi doon wax bribery gambian bi bribery daf ñu gëtën ñun duñ dee sacrificeal sun nit ñi suñ bopp rek lañ dé ligéyal ay lé ñu sétat suñ boppa bu baax ñen jégal ma nag ci li ma wax wax neexut way añ leen sétat sun boppa bu baaxa baaxa baaxa baax ñu jéma boka ñu store si bir Banjul store yi nekk bir Banjul ifin suko citizen bi momon sa warut am bir Banjul moreover dañ ñu ko jox ay na ñuy ñëw su ñëwee ñu korob la jox la benn two hundred thousand three hundred thousand nga bàyyi leen ñu samp ay store ñu ngi appel ñaari place nag ñoo amee suñ store yii nii biir Banjul waaw ñaari place yii nii yéen a ñu war a gestu biir Banjul ñu mun a jagar Banjul kansul bi ñu def seen liggéey lii it is very important lii li ko gën important amut kansul bi dañ war a def seen liggéey ñu meeg soo ne buñ allow nit ñi ñuy ñëw di leen jox plan so xam ne pour stoola biir Banjul ko approve because they are putting money in their pockets this is this is wrong it's completely out of order physical planning is the same thing applies to you people please help us da ngi ñi nga xam ne ñu nekku leen di def seen liggéey de soo leen defee seen liggéey soo du am biir Banjul there are a lot of people people like Tunko mu ngi xeex suba ngoon guddee bëccëg pour no stores in Banjul waaye pax bu mu rek mu am ñu ko suul pax yuñ rek mu am ñu ko suul waaye maa appeal to the whole Gambian not only Banjul the whole Gambian ñu bokka ñu seet naka la ñoo mën a ñi ñu génne leen fi suñ deful loolu rek ñi duñ fi génna ñaan ngir yàlla añ leen bokka ñu jël suñ loxo yi ñun ñëpp xol yi nekk benn ñu fay ñi nga xamee ne ñoo ñoo jéem a undermine di jéem a yaaxa yaaxa bi nga xamee ne moom la ñu liggéey to no stores in Banjul we don't need stores in Banjul Banjul is a residential area stores let them go around Bond Road area fële na la ñu def fa stores bor bu set nga gis troc yi si biir dëkk bi it is very unhygienic amul si benn capital city bu am our neighboring country fii nii Sénégal you won't see it there you go to Dakar it's not there it's not happening there they won't accept it duñ ko tolerate lu tax ñu ñu ko tolerate si benn xaalis bu ndaw be pare di jël sa bakke ni ay sa doom you don't care about your own family thanks very much ok yéen a ko dégga comme nuñ leen ko waxee rek still now ñu ngi Allen Street Allen Street lañ nekk nga xam ne kuy waxtaana ki nga xam mooy suñ mag bi muy du comme ni mu ko waxee rek mboolem luñ ci luñ ci wax rek ni ngeen ñu déggee xel te bañ ñoo dégloo xol digala wax neexut waaye lépp loo xam ne juumte am na si rek ngeen xam ne nit matut lépp lu si baax rek nga xam ne du si ñun si yàlla la comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi nii fii biir nga xam ne mooy Allen Street foofu noonu lañ nekka Allen Street tey ñoo seet si suñ mag bi nga xam ne mooy du du Njaay Duudu Njaay moom mi nga xam ne gis na démba gis na tey am na lu bari lu wax lu tax ñu ñëw fii tey seeti ko pii ñu waxtaan ak moom li nga xam ne mooy feebar bi muy lan coronavirus ñeneen ñi di ko ooyee Covid 19 ñeneen ñi di ko ooyee lan mbas mi. mu lambee àdduna bi moo lambee moo jaxasee wool bi fu nekk nii kenn dem di dikka bi amatut ñu waroon a dem aji màkka demuñ jumaa yeeg cooj yëpp ñu tëj leen kon ngalax ngir yàlla ak yonente bi ñu ngi leen a ñaan feebar bi lu am la soo gisee ñu dem tëj. kay yalla yi ngeen xamne febar bi lu am la ñu ngi leena ñaan ngir yàlla ngala nañ leen jël safa yi nga xamne mom la ñi nga xamne ñu amé walum yow wërgu yaram gi lañ téran moy lan safa yi moy lan ñi sol suñ face mask yi di suñ every time bref ñi moytu public gathering si Bare ñuy def social distance loolu rek mo ñu mëna sawé ci si bi febar bi nga xamne mo lamé aduna bi comme ni ñu leen ko waxee rek curfew dafa am biir Gambia fu nekka ni léegi tey tega gis ñu bëri ñu ngi try puy roos dem seen kër yi wala ñu bëri ñu ngi try puy pour mën a jënd seen reer dem seen kër yi bala ñoo dem rek last word lan nga am puy wax nga xam ne moo nekk ñi nga xam ne ñoo seetaan wala ñi nga xam ne ñu ngi ñëw follow right now yan advice nga am pour yi nga xam ne curfew bi is real Eh, li ma la liñ fi wax yëpp bari na waaye li ma gën a bugg wax rek pour mbooloo mi ngeen dégg ko mooy ne eh, comme nu ko suma broda waxee wax ne neexut wax nañ fi lu bari ngeen jégal ma si ñi nga xamee ne fii lañ ne dama leen offen offenu ma kenn am not pointing finger to anybody am just talking on behalf of the whole nation especially Banjul bi ma dëkka waaye fi ma leen a gën a advice mooy ne lii nii mi nga xamee ne mooy loi bi ñu tegal Luabi, bi it is do the punishment do punishment ma fàttali leen loolu nekkuñ di punish anybody they ñoo jéem a So sowe be moilan. You put on some face mask You raxas suñ loxoy regularly You make sure that you maintain the social distance You make sure ne public gathering bi you minimize So if you get a meet, then you maintain social distancing no handshaking. wash your hands regularly and then su the defee si kàttani Yala. febar bi dina fi teel a ko si barke Muhammad sallallahu taala wa sallam kofi bi ñu respect ñi nga xamé ne ñom lañ jël pour ñu doxal kofi bi si suñ bir de kabi ñu bay di daaxee wante police amu fi njëriñ yo mi daaxee wante police yi am yo ëllëg nga am ko you never know wel soko amé ken kenn ñaanu ko so waaye soo gisee ngaay mun a daw di dem di ñew da nga wër so gisé nga so wër tamit fan bugu da nga si ama so amul fan buguda do fi mu fekke lu bari so ngir yalla ak yonenté bi let's stay away from these troubles du ko defé dañoo muna fekke lu bari na witness lu bari elek ci katan yalla ci barke li jay waru hi wa salam jere jeen def bro thanks lord dina ko gandor mbokay ngir yalla ak yonenté bi nañ def liñ wax liñ wax moy lan ñu moytu di sol suñ fess maxi di raxas suñ loxo yi every time li nga xam ne moom la nguur gi santaane moom la ministry of health santaane loolu rek moo ñoo mën a loo si feebar bii nii mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek ñu ngi nii fii nga xam ne mooy Allen Street si biir Banjul foofu la ñëw tey puy won leen li nga xam ne moom la moom mooy xew biir Banjul fii nii curfew bi naka la ko nit ñi jëlee wala feebar bi nga xam ne moo lëmbee àdduna bi sonal wool bi sonal ñëpp kenn mënut a dem dikka muy feebar bii nii muy ban feebar muy coronavirus yi ñu di ko wax Covid 19 si loolu la ñoo waxtaanee tey mbokk yi kon ni ma leen ko waxee rek. jàppaleen ko foofu fan ngeen mun a amee li nga xam ne mooy xew biir Banjul si Covid bi muy Sahel Network TV mooy YouTube channel ñu leen a ñaan ngeen subscribe ngeen mun a am li nga xam ne mooy lii xew Banjul suñ Facebook page bi muy lan Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mun a senee seen comments yi. ngelax yàlla commune si nañ ko lool. jàngoro bi ñoo wax coronavirus dafa reye te dafa wër àdduna réewi Gambia am nañ ñu ees ñoo xam ne jàngoro bi dal na leen bul raxas sa loxo ak ndox bu tilim nanga fexe ba booy raxas sa loxo mu nekk ndox boo xam ne mu ngi daw nga àndale ko saabu te it di jonj sa loxo lu toll ci ñaar fukki sekon na ngeen moytu ay ndaje yu mel ni ngénte ak takk na moytu di lekkandoo ci benn bool na góor góorgóorlu ci soriwante aaral sa bopp te aar say njaboot ngir bañ jàngoro gi tasaaroo togglen seni kerak baby. Yeah. Mike Squad. Coffee 19. Lide tardel Demal kuruna. Jamu yaram MC bopp borom bule lay jël tagu. magi jàngle ndaw gambi waru. xuli napsin saa yi xatul maw ci deebu moo ñu teebu dogal julli jaamu yàlla nagoo deewee moo tëj di yil tey nag jàkkee la naaj bi tàng ñëpp di daj mburum sarax ànd ak tëj lii de ñaaxal nañu de nañu de tardel nañu de sonal nañu de nañu de nañu de tardel nañu de sonal nañu demal corona corona rey na tëj na jàkka ye ka nañu raxasu betaay yi government bi tëjal leen banga sa loxo bi ma ne may mamita asalaamualeykum doy na file raxasu leen ma ne ma na ku ma ne wax ko ku ne lii de géttin nañu lii de kardel nañu lii de sonal nañu histoire ñu leena a fatali ñuy raxasu di bay téré yi di meyante one mita corona lu am la is something real yeah stick records salaamaaleykum salaamaaleykum ah ok asalaamaaleykum ni ñu leen ko waxee woon rek ñu ngi nii fii ni nga xam ne mooy Allen Street ba léegi comme nañ leen ko waxee rek ah, am nañ fi waxtaan bu neex a neex a neex a neex tey ñu ne ak ki nga xam ne mooy Dune Ndiaye moom xam naa ne du ñàkk tamit kontaan ngeen ñeen ñi nga xam ne yi ngeen ñoo seetaan kontaan ngeen si waxtaan bi xam naa ne gis ngeen tey wala dégg ngeen li nga xam ne loolu ngeen waroon a dégg wax dégg neex yàlla ñu leen a jaajëfal yéen tamit ñi nga xam ne ñu ngi seetaan nga xam ne mooy Sahel Network TV wax naa leen ko mooy YouTube nim bi Sahel Entertainment studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mun a yónnee seen bataaxal yi comme niñ leen ko doon waxee rek. comme niñ leen ko waxee woon ñu ngi nii fii nga xam ne mooy biir Banjul Lasuwaaf kenn réerewul mbir ne Lasuwaaf ñëpp xam nañ ki nga xam ne koo xam ne dafa nga biir Banjul rek war ngaa xam li nga xam ne mooy Lasuwaaf. la suwa foofu romb nañ li nga xam ne mooy jàkka bi juma bi léegi dañ ko def juma maanaam jàkka la woon léegi ñu def ko juma macha allah ni ñu sampee juma bi moom rafet na lool macha allah ñu na jaajëfal rek jaa jëfal si li nga xam ne yéen rek ñoo toppa fii fi nga xam ne mooy Sahel Network TV si YouTube channel bi comme ni ma leen ko waxee rek Facebook page bi mooy Sahel Entertainment studio foofu ngeen mën a yónnee seen taxal si pour ñu mun ko xam wala ñu gis li nga xam ne moom suñ liggéey nax ngeen ko gisee comme léegi niñ leen ko waxee ñu ngi nii fii nga xam ne mooy la suwaaf fu nekk nii maanaam ten tigana ñëpp a roos puy dem kër because kenn mun de ten su tegee rek ñëpp dañ dee seen kër ñu ngi ñu ngi nii ba léegi ñu ngi lasuwaaf kenn réerewul ne lasuwaaf si xam-xam bi nga xam ne si gàttal si xam-xam bi nga am amoon na benn bu ñu daan ooyee marché lasuwaaf nit ñi daan ñëw foofu noonu ñi nga xam ne ñoo dekkee woon Tabakoro foofu lañ daan ñëw di jënd seen bagage yi maire yi nga xam ne foofu lañ daan jaay jën ñu si bari foofu lañ daan dem di jaayee seen jën foofu noonu ba léegi am na ñi nga xam ne ñoom nag ñu seen biir kër ñu ngi taxaw fu nekk ni ten tegale ñëpp tëj nañ am na ñoo xam ne nag moom ngi taxaw di jéem a seet situation bi comme naka la demee comme niñ leen ko waxee rek fàttali leen di fàttali suma bopp rek feebar bi muy ban feebar muy covid 19 lu am la coronavirus lu am la ñeneen ñi di ko wax feebari mbas bi lu am la lan moo ñu see mun a mu càlloo mooy maanaam ñuy raxas suñ loxo yi di sol suñ face mask yi loolu rek moo ñu mun a mu càlloo ba pare saa yuñ toogee ñuy def social distance ba pare ñu wàññi dem dikka bi wala cambaxloo bi ñu bàyyi ko ñu toog siñ kër yi comme ni ko gars yi di waxee self quarantine nga toog sa kër ci quarantine sa boppa ñu dimbale trop kumboka ni mone ko he ñu ngi nii fi nga xam ne la suwaaf foofu lañ nekk ñu ngi koof am na ñoo xam ne nag ñoom ñu nga daw ba léegi ñu ngi nii fi nga xam ne mooy koñi fi nga xam ne mooy koñi MC Cham MC Cham si koñ bii nii la dëkka kenn réerewul mbir ne Gambie ñëpp xam ne kan mooy MC Cham mi nga xam leen ne nit ñi am nañ ñi nga xam ne dañ ko daan oyo nit ñi mam ñi ñeneen ñi di ko wax Hitler noonu lañ ko daan ooyee MC Cham nekkoon na fi koo xam ne public figure la woon fii nii biir Gambia nekkoon bañkat ku mënoon a bañ koo xam ne bañkat rek la ñëpp loolu lañ ko xamee woon loolu tax ñu woon ko Hitler nekkoon na fi ministre of youth and sport ci time yi li nga xam ne mooy nguur yi yaga na di dimbele ay doom adama ku bàyyi tax bi nga xamne mom lañu seen fi la dika mom MC cham si tax bi ni fofu la dëkka nekkoon na fi ministre of youth and sports dimbele na fi ñu bari wax dëgg neex yàlla su koñam lañ nekka ni mu koñi kan MC cham fofu non lañ nekka fofu non ni lañ comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngeen nii biir Banjul wax naa leen ko ne leen ne soo leen bëggee xam li nga xam ne mooy xew Banjul curfew bi naka la moo demee Banjul fan ngeen ko mën a amee muy fan Sahel Network TV mooy YouTube channel bi Facebook page bi muy lan Sahel Entertainment Studio mooy Facebook page bi foofu ngeen mën a yónni seen bataaxal maanaam foofu ngeen mën a yónnee seen li nga xam ne mooy commune si comme ni ñu leen koy right now nii ñu ngi nii fii nga xam ne mooy Ken Street Johnson foofu la nga xam ne foofu la compagnie foreign bi nekkee si gannaaw foofu noonu la nekkee nga xam ne mooy Johnson yi One Love muy team bi nga xam ne tiim bu amoon doole la biir Banjul seen Johnson yu bor boobu lañ nekkee waaye nawetaan team la woon waaye léegi maanaam dañ ko ban si nawetaan bi biir banjul comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi nii biir banjul koñ bii nii biñ nekka mooy ban koñ fii la alhaaji moudou moussa njaay dëkka alhaaji moudou moussa njaay ñëpp xam ko mu nekkoon koo xam ne ku yàlla meyoon la muy kan alhaaji moudou moussa njaay koñam foofu noonu lañ nekka alxaaji Modou Moussa Ndiaye dimbale na fi ñu bari mu amoon benn doomam bu ñoo wax alxaaji Ousseynou Ndiaye léet Ousseynou Ndiaye <clears throat> fii nii am na ñoo xam ne ñoom dañoo seen def dëgga ku gis building bii nii on my left hand side muy alxaaji alxaaji Modou Ndiaye Modou Moussa fii nii la dëkkoon muy building bii nii nga xam ne moo nekk suma on my left hand side foofu noonu la nekkoon am na ñu bari ñu ko daan ooyee déedéet mu nekkoon koo xam ne ku yàlla mayoon la mu dimbale fi ñu ñu bari muy këram moo nekk nii ba léegi kër gi structure bi ni ko bàyyee woon rek noonu la mel wax dëgg neex yàlla amoon ki nga xam ne mooy woon taawam si li ma xam si maanaam si li nga xam ne moom la ma magi wax muy muy kan muy alxaaji Ousseynou Ndiaye léegi Ousseynou njaay yal na suuf seeda si koom yal na suuf seeda si mboolem ñoo ne aji jiite yi lañ alhaaji alhaaji Modou Moussa Ndiaye mooy këram moo nekkoon nii fii nii la dëkkoon nga xam ne fii la doomam yëpp mun na si lima ma xam si xam-xam bi ma am li ma magi wax si la doomam yëpp muy kan doomam yi muy kan alhaaji léet Ousseynou njaay mi nga xam ne wax dëggan ne yàlla dimbali na fi ñu bari dimbale na fi ñi nga xam ne sax moom seen boppa sax ñu fi daan dimbale sax moom si boppam sax ki nga xam ne mooy alaaji leet seeni njaay xamut la woon moom mi nga xam ne moo fi moom team boobu noonu muy fut football tiim tey biir Banjul muy ban tiim Hawks moom moom team boobu noonu alaaji seeni njaay dimbale na fi ñi nga xam ne ñu bari bari la woon moo ibi woon li nga xam ne mooy commercial bank ñoo fa nekkoon jàppale ay ndaw yu bari waa Banjul yu bëri mun naa ne sa jàppale ñi nga xam ne duñu waa Banjul daf leen daan jëlee ji ay base si li ma xam-xam am na si ñoo xam ne nag dañ ñoo seen rek di daw dañu dee seen deg di daw comme niñ leen ko waxee rek alaaji alaaji Ousseynou Ndiaye jàppale na fi ñi nga xam ne ñu bari bari bari la woon suñ buggee wax si moom dañoo lim bi Sonatel bi fi jógee si liñ xam si gàttal maanaam am na ñu fi jàppale waa Banjul am na ñoo xam ne sax duñu waa Banjul dañ jógee si dex mu isi leen fii dëkkal leen dëkkal leen jox leen liggéey waa dëgga neex yàlla billaahi comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi nii fii ni nga xam ne mooy boori Dobson fa la all immigration department bi nekkee mu nekk on my left hand side foofu noonu la nekkee fii mooy woon all uh, immigration department bi ñu ngi nii na di woot fuy dem Hagan Johnson boor boobu noonu lañ nekkee fii comme ni ma leen ko waxee rek wax naa leen ne soo leen bëggee xam li nga xam ne moo xew Banjul curfew bi naka lañ naka la moo demee biir Banjul fan ngeen ko mën a amee muy fan Sahel Network TV foofu rek ngeen ko mën a amee foofu ngeen mën a am comme ni ñu ko waxee rek ñu ngi ni Johnson Higan Higan Johnson foofu nañu njëkka soo bàyyi am na benn truck boo xam ne mooy cross noonu am na ñu waa Banjul ñoom ñu ngi fonka li nga xam ne moom la loi bi tëral muy curfew bi waa Banjul wax dëgg neex yàlla waa curfew gi moom jëlee nañ ko seriously waa Banjul ñoom ñu ngi def li nga xam ne moom la loi santaane tey ñaan ñu ngi nii comme niñ leen ko waxee rek jóge nii boori fi nga xam ne mooy fifteen boori Roman School foofu noonu lañ nekk muy Roman School kenn déedéewul mbir ne ñu fi bari jaane mu ngi nekk on my right hand side fi nga xam ne mooy Roman School moo nekk nii suma right hand side fii ñu bari jaay nañ fi jaar nañ si school bii nii fii nii mooy Roman school on my right hand suuf mooy building bi ngeen a seen nii bi fële nii am na benn maire bi fa daan daan jaay foofu noonu si Johnson yi Roman bi maire bi mu daan tudda yaa Teres ñëpp xamoon nañ ko building bi nga seen nii on my left hand side fii nga xam ne foofu lañ sapastoo yi fii dem si yàlla ki nga xam ne mooy Père njaay fii la dëkkoon tey ñu ceeñ ko def ko ay ay building ay stores Mohammedan school ñun time boobu nga xam ne man maa ngi woon Mohammedan school dañ daan mën a toog si palanteer bi suñ palanteer yi classe bi di gis këram muy kan muy Père Ndiaye moo amee woon bi nga xam ne political party bi nga xam ne moom foog naa ne su juumee ngeen jubante ma muy muy naka la fàtte naa tur gi waaye amoon na fi benn political party bu amoon doole UPP UP muy Père Ndiaye building am bi moo nekkee ni on my left hand tey léegi ñu jël ko def ko ay store wax dëgg yàlla building amoon na fi njëriñ waroon naa nekk building boo xam ne at least dafa nekk a historical place ñu ngi ni Johnson bakku comme ñu ma la ko bokkul foofu noonu lañ nekk ñu ngi ñuy bokkul jéem a seet situation bi fii nii naka la mu fee demee curfew bi naka la ko nit ñi jëlee ñu ngi nii nag bokkul comme ni ma la ko waxee rek su on my left hand side fii nga xam ne fii mooy Mohammedan school fii kilifa yu bari jaar nañ fi ñan ñoo sampoon school bi nii si gàttal comme li ma magi daal wax ñu ne ma muslim muslim muslim elders yi nga xam ne ñoo nekkoon Banjul ñoo taxawaloon lii nga xam ne mooy school bii nii xam moo dañ ma wax muslim mi nga xam ne Banjul muslim elders yi ñoo ko taxawoon ñoo ko ay kilifa yu bari jaar nañ fi ñi nga xam ne mooy lan even ñu ne président bi nga current président bi nga xam ne moo fi nekka tey muy Adama Barrow jaar na school bii nii mu ne Mohammedan primary school nga xam ne suñ maam suñ papa fii mooy Mohammedan school ñun ñëpp gis nañ ko mu ngi nii signboard ba nekk ni Mohammedan school li jamono jamono bi nga xam ne bi maa ñëw fii nii school si ko sampa defar signboard bi nii muy Mohammedan school man mii di wax ak yéen fii laa defe suma primary school yëpp fii kilifa yu bari jaar nañ fi ku si mel ni tey current président bi fi nekk muy Adama Barrow jaar na fii nii nga xam ne muy Mohammedan school waaw building bi nga seen nii fii la building bi nga seen nii fii nii juif yi nekkoon nañ fi juif yi mooy fii mooy woon seen force building bi foofu noonu la juif yi nekkoon comme réeré woon mbir ne Corée léegi moo tudda Nowek tur bi njëkk bi woon mooy woon juif yi fii nii la nekkoon mooy on my left hand side mooy building bi ngeen a seen nii fii la juif yi nekkoon léegi ñu ceeñ ko def ko muy Nowek nga xam ne ñoom ñoo amee wàllu courant yeeg wàllu comme ni ma ko waxee building bii nii nga seen ni fii la Norweg njëkkoon a nekk muy GUC mooy woon first name bi first name yi Norweg bi mooy woon GUC fii lañ daan ñëw di fee suñ bil si ak yooyu noonu ut si mita yëpp fii la woon tey mu tudda kon niñ leen ko waxee ñu ngi nii still now ñu ngi nii nga xam ne mooy xi muy fan bokkul bokkul nag Kembe muy ne mooy si boori tefes yu fa la stoo yi nekkoon foofu lañ nekk beneen building bi si tegu nii beneen building bi si tegu nii fii la soldaar yi dëkkoon ñu nga xam ne time boobu ñoom bombarde fii lañ dëkkoon mooy mooy si taax bii nii ngeen a seen nii soldaar yu bari fii lañ dëkkoon ñi nga xam ne ñoo daan gaat président bi muy président dan former président Jawara ñu si bari fii lañ daan fii lañ dëkkoon su mel ni bombarde fii la dëkkoon ak ñeneen ak ñeneen si building bii nañ nekkoon ñun time xale suñ génnoon school suñ génnoon break wala ñu wàcca dañ daan ñëw fii nii comme ni ma leen ko waxee comme ni ma leen ko waxee ñu ngi nii bii nga xam ne mooy fii nga xam ne mooy bokkul beneen building bi si teegu muy building bii nii fii la lead Ousseynou Ndiaye dika lead Ousseynou njaay fii la dëkkoon muy kan doomi du musaa Ndiaye fii la dëkkoon mooy building bii nii tey nga na seen ñun ñëpp ñëw nañ fii di fi seetaan ay football time boobu noonu satalaay bariwutoon biir Banjul satalaay bariwutoon biir Banjul fii la Ousseynou Ndiaye dëkkoon muy leet Ousseynou Ndiaye fii la dëkkoon bu ñëwaan dañ daan dugg fii seetaan football ñu si bari ki nga xam ne koo xam ne dëkk nga Banjul ñëw nga fii pour seetaan football fii nii nga xam ne mooy leet Ousseynou Ndiaye fii la dëkkoon muy njaay famille bi muy kan doomi Modou Moussa Ndiaye soo leen di ngeen ko gis muy Modou Moussa Ndiaye Memorial Clinic ñëpp gis ngeen ko muy noonu fii nii la li Ousseynou Ndiaye foofu nii la dëkkoon stin na comme ni ma leen ko waxee rek ñu ngi nii bokkul bokkul foofu noonu lañ nekka nii bokkul daan ñu ngi nii na si boor boor yi police station bi gis nañ Banjul magistrate court bi moo nekka nii on my left hand on my hand side boor bi nii mooy police station bi fu mu nekkee mooy mu ngi nekkee suma right hand side foofu na la mooy police station bi réerewul mbir ne Banjul police station bu mag muy head office bi fii la nekka soo leen bàyyi xel on my left hand side di nga am fire service building bi moo nekka on my left hand side muy fire service building bi fii naaw ñu ngi bokkul fire service building bi moo nekk on my left hand side den nga am standard chartered building bi ras on maa le fan saaj comme bokoy comme ni ma leen ko waxee rek ñu ngi nii fi nga xam ne mooy bokkul bokkul foofu noonu lañ nekka ba léegi ñu ngi bokkul bokkul wax naa leen ne bokkul foofu la soo bëggee ay maalo fariñ ak yooyu noonu fii lañ nekkee kon ni ma leen ko waxee rek ñu ngi nii bokkul bokkul lañ nekka comme bokkul comme ni ma leen ko waxee rek di faat kon ni ma leen ko waxee di suma mbokk di leen fàttali rek mbokk yi kon ni ma leen ko waxee rek ku bàyyi xel building bi ngeen a seen nii kon mbokk yi comme ko waxee rek nee na jaajëfal rek si toppa bi ngeen ñu toppa fii nga xam ne mooy Sahel Network TV ñu ngi leen jaajëfal ak di leen ñaanal jaama di ko sàkku si yéen saa su nekk rek comme ñu ci wax rek ni ngeen ñu déggee xel te ba ñoo dégloo xol ñu jox daje bi beneen yoon ci beneen waxtu fan fiw bi mi nga xam ne moom la nguur gi tëral Sahel Music Group. SMG, baby. Yeah. Mike Squad. Coffee 19. aku wér gu yaram duñ ko tanku ay du MC bop borom bu lay jël si du lay tagu magi jaxle ndaw yu waru feba duggi gambi waru kulli nafsin sayi khatul maut mawti deebu moo ñu teebu yala julli jamu yalla na ko dewe mo lay teru fagaru len bala xode xodeeku len bala lak raxasu len bala tak Kenn jamu lañu wëggu fu ñu dugg ñëpp di bëgg Pandemic is fucking real never take it as a deal Te nag jàkkee lañuy tëj naaj bi tàng ñëpp di tej mburum sarax ànd ak tej Jaka ye jotayi, denka nanyu raha sube tayi. government bi tëjal leen ñu border bi banga sa loxo bi ma ne may mamita asalaamualeykum doy na file raxasu ma ne ma ne war na ku ne mag wala xale ma ne wax ko ku ne lii de géttin nañu lii de karnel nañu lii de sonal Hit Squad ñu leen a jéem a fàttali ñuy raxasu di bàyyi tere yi di meyante one meter corona lu am la is something real yeah. Stick with us. salaamaaleykum. salaamaaleykum. ah.